نبينا محمد المكين وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا نفسيني يعني عندي توم بو xam توم بو bu الله جمتي la jëm ci wàllu di histoire muy tarikh Bohamne, xamne wala histoire bor xamne wala mbor mo xamne lu am solo la waye lu metti la ci xol waye lu complexe la manal lu xawa jafé jafee la te modi di li Karbala Karbala ab dekk la bu nekk ci Iraq moy Irak la fa xewon nak moy faat guñu ñu sang bu tedd bi di sëtu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sayiduna xuseyn alayhi salaam mu nekk loo xam ne boo koy waxtaanee jullit ñépp seen xol mën na cee mettee mu nekk loo xam ne boo ko waxtaanee jullit ñu bari danañu laaj waaw ana lan moo waral ñu àgg ci rey sëtu bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu nu ko ay jullit mën a xalaate la ca gën a yéeme moo di ñu wax ne ay jullit lañu ñoom ñoo def ñoo xam ne doon wax ashhadu an laa ilaha illa allah ginaaw bi fi yonent bi jógee ki nga xam ne bokkoon na ci ñim gënoon a bëgg ñu jàkkaarloog moom faat ko faat mboolem njabootuk yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu dul ñett lu dul ñett rek ñoo ca desoon daanaka kon xam nga loolu xew-xew bu metti la bu tiis la xew-xew la boo xam ne boo koy nettali muy Karbala lu complexe la lu xaw a jafee waxtaane la bu fekkee da nga ko bëgg a teg ci maandu ndax xam nga histoire arab day wax ne laysa taarixu ma kaana mana histoire ngir nga bu xasse ba weesu ngir ñu netale ko nim xewé won ci deug deug lu xawa jafé lay doon ndax ci li ngay sukkandiku ay way lay doon yo xamne kiko bind man euh, na am émotion man mana na ca dugg man na am parparlo dugg ca man na am fum fété ndax histoire bi di Karbala doxone digënté Yazid Yazid di domi Muawiya danañ ci ñew ak sayidna husayn ak njabootu yonant bi alayhi Salatu Wassalam, ndax husayn dañ ko faat bo nopi faataale ñu bari ci njabootu yonant bi alayhi salatu wassalam bo nopi nak am ño xamne ne dañu mel dañ leena japp muy lu ñaaw ñu Askon ci yonant bi ñu japp leen ñu melni ay jaam mu nek lu triste lu ñaaw lool xew-xew la bo xamne dama wax ne lu complexe la ndax dafa am ñaari kat yu ci bind manam ñi ci bind leela dañuy nek ñaari xaj ñen ñi dañuy far ci ahlul bayti deug la ahlu bayti julit ñepp dañu wara far ci ñom waye li ma bëgg wax moy dañ fay jeng bam ëpp far gañ cey far day tax ak nono gañu nono muawiya day tax nak bu ñuy ngir ñu mëna a day xawa jafé jafe dana tax lo ne danañ ko andi eh, yak ko ko ta mën na am deug deug demé wut nona ñen ñi nga xamné nak dañuy défendre muawiya ndeka muawiya sahabala, la bokku nak ñi mujjé jébbalu ci fathu makkah wala lu ko jégé ñoom bëgg défendre Muawiya ak wane ni ab sahaba la dana tax wax dëgg yalla ñu bëgg ko défendre ci lo xam lu xawa jafé jafe lu xawa jafé lay doon wayé tamit dana taxit nak lég lég sax nak ñuy ñaké teggin sayyidna husayn am ci ñu dem ba di wax naan husayn dal li tax ñu faat ko mom moko def moko def nangam melni dañu bëgg justifier faat giñ ko faat ta lool kenn mënu ko justifier wax dëgg yalla waaw kenn mënu ko justifier amu dara lu wara justifier ray guñ ko ray ak ñaaway bi ak boole gi ñu ci boole njaboot ak yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne dara ci xorma nga xam ne amu ca li tax ñu faat ko daal du dara lu dul nar a texee di nar a texee di ay nit ñu mal sens ñàkk sens nar a texee di rek euh, seen bis ñëw ñu def ci jëf ju ñaaw jooju nga xam ne histoire du ko fàtte mukk ba addunay tukki mbokk yu tedd yi damaa wax ne li gën a yërëmtalu ci xew-xew bi ñaari mbir la mbir ma ca njëkk moo di ay jullit ñoo faat sayidna xusayn ak njabootu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo xam ne ay jullit lañ doon woote kon mu mel ne ñaari jullit ñoo jàkkaarloo amul werante ne ñi faat xusayn doon xeex moom amul werante ñoo ko tooñ tooñ ko amul werante ñëpp d'accord ci li ci gën li ci gën a triste tamit bokkaat na ci mooy moo ne xusayn mii ak ñii nga xam ne ñoo ko faat wala kaleen jiite di Yazid moo ne ay mbokk lañu waaw ah, boo toppee seen askan ñooy bokk jenn ñooy bokk jenn maam ñoo bokk wenn askan ndax yeesit mii nga xam ne booba moo nekkoon buur nga xam ne loolu lii lépp ci kilifteefam la xewe ku tudd muawiya moo jur muawiya baaye mooy abu sufyaan ñu koy tudde saxro abu sufyaan ki ko jur moo di xarb xarb ki ko jur moo di umayyata moo tax sax ñu naan giirug umayya banu umayya ñu yag ci nguur lañu umayya ki baye moy abdu sams abdu sams abdu Manaf, moko jur kon gis nga jàppal abdu manaf mom ma wax japp ko bu baax ma ngi delsi wat ma ngi jaarat ci askanu husayn te ci abdu manaf ci lay daane laa boo jëlee xuseyn mom ku ñu xam la ki baye moy sayidna ali ibnu abi talib radiyallahu anhuma ñepp xam nañ ko sayidna ali kuy bayam modi abu talib abu taalib mooy baayam abu taalib abdul muttalib moo ko jur abdul muttalib haashim moo ko jur haashim mii nag abdu manaaf ma moo jur haashim mii am na sax ñuy wax ne ay seex lañu moom haashim ak abdu sams haashim ak abdu sams kon gis nga yesiit mi nga xam ne ci kilifteefam la faate xoseyn abdu sams maamam jële ak Xuseyn mi nga xam ne moom la ñu faat euh, Hachim moo tax ñu naan Banu Hachim gis nga seen ñaari maam yooyu ñoom ñoo bokk ndey ak baay euh, Abdou Manaaf mooy seen mooy seen waajur kon gis nga wenn askan lañu gis nga ñaar yooyu lu xaw a lu xaw a triste lañu euh, ñoom ñaari famille yi nag dañuy wax ne dañoo yàgg am ay jafe-jafe muy Banu Hachim ak Banu Umayya boo delloo ci ginnaaw bari na ay jaar-jaar yu ñu jaar yoo xam ne. wax dëgg yàlla ay xëccoo ak ay coow ak noonoo dafa mel ne yàgg naa am yàgg naa am noonoo nag bu amee ñenn ñi buñ demee ba am doole wala ñi ci des mënatuñ ci dara day mel ne lu suuloo dafa mel ay xal yoo xam ne day nëbbatu waaye ci dëgg-dëgg fekk naa nag euh, boo sulee gël ba mooy doom bi boo ko sulee rek boo wattandiku da nga gis jeexiti xal ya jeexiti sawara sa da gis muy gëlgëli moo tax benn waykat tënk ci ñaari bayit ne abdu shamsin qad adramat li baniha shimi naaran wala boog xarban am na ju bin xarban yashibu minha lil mustafa wabnu hindin li aliyin wa lil xusayni yazidu muy dafa wax ne ñaari famille yi muy banu hashim bi yonent bi sallallahu bokk mooy xusayn ak giir nga xam ne moo di banu umayyata nee na naka jekk day euh, mosuñoo dañ ci di jàppante ndax nee na Abdou Sams mi nga xam ne mooy maami Yazid mi rey Xuseyn ci kilifteefam nee na amoon na jafe ak euh, magam ji wala rakkam ji neñ nee ñu Abdou Sams moo njëkk juddu di Hashim Hashim mi ñu dàkkantal askanu ñoom ñaar amoon nañu jafeñ-jafeñ ginnaaw bi Abdou Sams bi mu faatu tamit bàyyi fi doomam ji di Umayyata nga ne motax ñu naan banu umayata al amawiya momit amon na jafé mi ak hashim mi ba amna na doon xëccoo ba hashim gañé ko ne ñu njital makka ndax hashim dafa judd rek yalla may ko barke mu siiw nit ñi nangul ko lu bari wax dëgg yalla nit ñi diko ko denk ta lolu dafa xawoon a metti eh, umayata male ak bàyyam bee ba tax sax eh, umayata daa muju genn makka ak lu ko wër dem fele nga xam modi modi sam moy fi wax siri léegi waaye nak Eh, liñ wax siri lu tuuti la ci sa bu ñëk buñ ñu ko wax rek ëpp na loolu lu yaatu woon la lool lool kon gis nga seen ñaari maam yi amoon nañ jafe-jafe ci xëccoo ak eh, mel ne xeetu fiirante ba gis nga kenn ki génn gis nga bi ñëwaatee ci Abu sofiane gis nga moom it mook yonent bi alayhi salatu salaam gis nga ñaari giir yi Abu Sufyaan ak yonent bi alayhi salatu wasalaam kon gis nga ne li ñuy waaj nettali lu sori la lu sori sori la abo sufyan mboolem xare buñ daa tak diko jëmele ci yonante bi rek jappal ne moko jitu wala bok na ci ña jitu waaw yene day ñew teew yene mu def ci kartanam ak lu man ak influence am lu ne def nako ko yalla dogalul nak mu manal yonante bi alayhi salatu wasalaam dara motax dako da koo xex xeex dem ba daanaka nek mak bi nga xamee ne dem na ba yonante bi wax deug yalla yalla defal ko doole jo xam ki musugo gis mu ñew nak wara ubbi màkka nga xam boba wax deug yalla kutubutit da ngay sonn rek ci la Abu Sufyaan doog a tuub ca booba boo fekk na xaw nekk na mag waaye booba tamit fekk na wax dëgg yàlla yonante bi kenn mënalatu mënalatu ko dara ndax nit ki bu nekkee boo ko jàppee sam noon ngeen di xeex di tolloo doole muy yéeg di yéeg ba toll foo xam ne wax dëgg amatoo kàttanu mën koo dékku ko nga maslaa rek da cay baax moo tax ñu bari di tuumaal Abu Sufyaan naan tuubam gi du tuub gu wér waaye tuub goo xam ne tuub bu ñàkk pexe la dem nga ba sam noonu wër la ndomba ci côté yu ne amoo amoo pexe waaye nag loolu wàllu tuub moom nañ ko bàyyi yàlla suñ borom subhanahu wa taala ñu bari ñi nga xam dañuy contre Abu sufyan di contre Muawiya banu umayata dañ leen di jaar fii di wax ne ñoom kat ay tuubeen lañ yoo xam ne dañoo dem ba ñàkk pexe rek doog a tuub waaye loolu mbirum suñ borom la subhanahu wa taala moo xam kat la ak tuubam dëggu ak ak ak tuubam wut dañ ko bàyyi yàlla ndax mbirum xol la kon gis nga ne Euh, Hashim ak Abdou Sams ak Umayya ta gis nga jaar nañ ci ay jàppante Abu Sufyaan ak yonent bi alayhi salaatu salaam euh, gis ngeen ko bi ñu jógee ci loolu ñu demaat ci ñeneen ñaar mooy Muawiya ak Seydina Ali ibnu Abi Taalibin <laughs> Muawiya Muawiya mi nga xam ne mooy doomi Abu Sufyaan Abu Saxra ibnu Harb la tudd dëgg-dëgg ak Seydina Ali ibnu Abi Taalibin gis nga leen ñoomit it euh, xëy na danañ ci danañ danañ danañ jaaraat beneen côté sax ngir wane ñoom ñaar daje biñ daje waaye ñoom ñaar metti na lool metti na lool danaa ci ñëwaat ci ci ak yaatal daal jàppante nañ jàppante bu metti ba Seydina Aliyun ci la euh, faatoo nam faatoo danañ ci ñëw incha allah Muawiya tamit jëloon na ci ab gaañu gaañu bu metti lool ba ci la mujj faatu waaye ginnaaw bi toogaat na fi nag moom lu yàgg-yàgg kon ñoom ñaar jàppante nañ jàppante yu méttee méttee métti ba léegi rek boo demee ci téere yi seen mboor ñoom ñaar mi ngi fees dell téere yi mi ngi fees dell danaa ci ñëwaat mii nag doomi Muawiya di Yazid bi fi Muawiya jógee moom moo ko wuutu Muawiya moo ko moo ko teg ci ginnaawam ne ko ngir mu jiite jullit ñi ci doole nag la ko defee amul werante ne ci doole la ko defee waaye Muawiya gis nga nag moo ko na gis nga ñoom ñaar ñoo dajawaat loolu nag moo indi Karbala kon gis nga Karbala fi mu jógee eh, nam soree moo tax boroom xam-xam boobu binde ko noonu ne ñoom ñaar day wax dëgg yàlla Abdou Sams naka jekk rek moo jote woon ak Hashim yonent bi alayhi salaatu salaam parce que Abu Sufyaan sonaloon na ko waaye ki nga xam ne moo di Muawiya soloon sonaloon Seydina Ali ibnu Abi Talib radiyallahu anhu lool bàyyi xel na Muawiya saxaaba la doonte bokk na ci ñi mujjee jébbalu waaye gis nga Xuseyn fi Yasiid mujj jaar ak moom ba Karbala xew ba gis nga jëyee ji ñuy waxtaane foofa la jaar kon loolu yenn la ci sabab yi nga xam ne jiitu woon na mbokk yi tedd yi Karbala ab film la boo xam ne boo ko doon joué dafa am ay ay acteur principal mën naa gën a yaatu waaye daanaka rek mën nga koo tënk ci ñoom ñii boo jëlee Seydina Ali ibn Abi Talibin jël Muawiya nga ne ñoom ñaar ñoo jàkkaarloo woon ginnaaw bi Seydina Ali génn àdduna Alxasan doomi imaam Ali moom jàkkaarloo woon ak Muawiya waaye wax dëgg yàlla jàmm rek moo ci mujj ndax moom dafa am gis-gis am doxalin boo xam ne moom la jëloon ba tax jàmmu am ba tax jàmm am doonte moom it na nu mu mujjee xëy na danañ ci ñëw. léegi nag ginnaaw bi fi Muawiya jógee te bëgg a samp doomam jooju ne faaw moo jiite jullit ñi euh, bëgg a weñ loxob jullit ñi te ñu baree bare bare bañoon bokk na ci Màkka ak Madina danañ ci ñëw lu mel noonu nag moo indi Xuseyn bokkoon ca ña bañ loolu bokk na ca la tax Karbala am waaye dana ci ñëw ci ak yaatal kon dafa mel ne Seydina Ali ibnu Abi Taalibin Muawiya ibnu Abi Sufyaan al Hasan al Xuseyn ak Yazid ak Yazid moomu su ko defee am na beneen côté boo xam ne manoon naa caa tàmbalee ngir mën a ñëw ci Karbala ndax boo bëggee nettali dara bëgg nit ñi comprendre ko faaw dangay dellu ca cosaan yi gën a sori loolu mooy lan moo di mbir mi boo koy seet dana gën a sori loolu boo koy seet wala boo am na beneen ongle boo koy mën a jëlee mooy lan mooy dafa mel ne tamit yonent bi alayhi salaatu salaam jóge gi jóge ci àdduna dafa mel ne am na impact ci lii nga xam ne moo xew yonent bi alayhi salaatu salaam ak génn àddunaam bokk na ca loolu it am na lu ca feeñoon sawara woo xam ne aw xal woo xam ne xal woo mën nañoo jàpp ne karbala bii ci la ci la bi alayhi salaatu wasalaam ku ne xam na ne bi nga xamee ne mi ngi waaj a génn ta aj ajam gu mujj googu ndax loolu taxu ñoo jóg dañ ciy jaar lii ñuy waaj a wax taxu ñoo jóg moo tax xaar ñu xóotal ci dañ ciy jaar jàll bi mu ajam gu mujj googu ñibbi si ñëw madinat munawara dem siyaare ci baqiya ak yafa xew eh, lu mel ab sibburu bopp metti dal ko yaram wuy tang lol ba tàngooru jeg de nga dañ jël ndox di ko soti ngir mu mana oyof mu dem ba mënatud a jiite julli mu san seydna ni siddiq radiyallahu anhu mu mu di len jite ba yalla dugal ni mu genné aduna bi mu genné aduna lol nekkon lu xawa a lol way ñun lol taxu ñu jokk waaye bi mu genné aduna nak li ñu tuddee succession manam nak ndono ndono yaronte bi sallallahu alayhi ba batay dafa laal ci karbala ndax lutax moy. yonante bi mu génnee àdduna nga xam ne denc guñ ko ñi ngi ko sàng noonu ci nee bi ca la waa ñu ñuy tudde al ansaar al ansaar mooy ñi nga xam ne yonante bi ak saxaaba yi biñ demee ba xat màkka ansaar ñoo leen accueilliroon madinatu munawwara ñoom moo tax ñu mooy ay ndimbal ñu ne yonante bi ñëwal fii danañ la taxawu balaa kenn jot ci yow dafa ñuy rey ansaar yooyu ñu jàmbaar lañ bari ay ngëneel waaye ansaar dem fa fu ñuy wax saqiifa benn barab ñoom tàmbali moom daal di bëgg a fal seenub xalifa ñoom <laughs> waaw saad ibnu ubada di saxaaba bu baax ñu tàmbali ne dañoo bëgg a fal seen xalifa te comme yonent bi màkka la nekkoon mënu faa nekk ñu jige màkka ñëw madina ñoom ñoo leen dalal ba yonent bi sax madina la mujj génn àdduna ah saxaaba yëpp ñu accueillir leen ñu ne kon ñoom ñoo war a nekk xalifa lii nag sayidna aboubacar ak sayidna omar ak abdourahman ibnu awf radiallahu anhum ak saxaaba yëpp yàlla yàlla doon leen yërmane ak ak ngërëm yàlla doon leen ngërëm ngërmaane ndax yàlla nee na gërëm na leen ba noppi ñu xam ne loolu kat lu xaw a jafe la ñu daal di rocc ko ci mbooloo mi fekk yonent bi mi ngi doog a génn àdduna ci saasa yëf yi tàmbalee kii li ñaan dëj bu tooy xepp waaye teewul ñu xam ne kat loolu bu ñu ko naree bàyyi nar naa indi ay coow ñu daal di jóg nag dem foofa di lijjanti wàllu xilaafa gi foofee fu tàngoon la moo tax bul defee ne yonent bi dafay jóge rek ni julli ñi daa ñëw dajaloo ci Abubakar ne ko nañ jaayante déedéet loolu mën naa ma yow mi jàng téere yu ndaw yi dañ la koy tënkal noonu rek waaye lu xawoon a jafe la lu complexe la bari woon na ay coow bari woon na ay xëqante bari woon na sax yoo xam ne mënee su koo nettali ngir eh, di gën a warmal saxaaba yi ndax ay doomu aadama lañu bari na yu kii ndax ñoom faloon nañ daanaka ñoom seen xalifa ba noppi ginnaaw bi ñu ne muhaajiroone yi nañ fal seen xalifa lansaare fal seen xalifa waaye ñu xam ne loolu day xàjjale jullit ñi ci la bari ay coow ba Abubakar Abubakar Siddiq daal di jóg def ab discours daal di wax na mbir mi kër wax dëgg muhaajiroona ñoo ci gën a yay mooy ñi àndoon ak yonante bi ci jamono yu metti ya daane kon dañ tee ñoo fal sayidna omar ibnu alxataab radiallahu anhu sayidna omar jóg sayidna omar wala abdurahman ibnu awf sayidna omar ne ko déedéet wax dëgg yaa ci gën a yey daal di gaaw jaayanteek moom nit ñi nag di jaayante bañ fa jógee doog ñëwaat nag ci biir nit ñi fa ca dëj ba fa nga xam ne fa la fa la yonante saa nekkoon ginnaaw bi lañ leen xamal ne jaay jaay dem nañ fee kat ba déggoo nañ ba jaayante nañ aca ñëw leen jaayante nit ñi doo ñëw di jaayante waaye am na ñu bari ñoo xam ne dañoo lànkoon bañ a jaayante ay saxaaba yu mag rawatina famille yonante bi alayhi salaatu salaam nga ne ko mel ne sayyidatuna Fatima dem na ba génn àdduna te jaayante wut moom daanaka juróom benn weer la am ginnaaw bi doo ko génn ku mel ne sayyidna Ali ibn Abi Talibin mii nga xam ne Karbala laal na ko moom it nga xam ne jaayante wut daanaka daal famille yonante bi salaatu salaam dañoo opposé woon bañ a jaayante sayyidna Abubakar ginnaaw bi nag bim mu ba sayyidina Fatima génn aduna euh, ci la yu bare bare wat yu bare bare ñëwaat sayyidina Ali yu ñëw ñëpp daal di daal di dajaloo ginnaaw boo xam kon gis nga kon succession bi gis nga fi mu jaar nga xam ne famille yonante bi dañoo jàpp ne ñoom dañoo ci gën a yey xam nga foofu problème tàmbale na am ngir nga bëgg a xam problème bi fi mu tàmbalee dëgg-dëgg waaye bi nga xam ne dem na ba war fay jóge dafa tànn sayyidina Omar moom nga xam ne moom moo ko fal dafa tànn Omar nga xam ne moom samp maa ne foofa fal ga noonu rek la jógee maanaam xalifa bi fi jógee moo fal kii ni ku ne dañoo dajaloo waxtaan wala dara Seydina Omar toog fi xam nga kon famille yonante bu fekkee dañoo ñoo faroon nekk foofa la siixan jógee ndax siixan mooy ñi nga xam ne dañoo jàpp ne gën a yeewee ci mbir mi a coup d'état ñoom loolu lañ koy waxee xam nga bu fekkoon dañoo jàpp ne a tegu ginnaaw yonante bi Omar a mën naa gën a xambataal Seydina Omar bi mu dee bay génn àdduna moom dafa wut ab délégation rek juróom benn nit ñoo xam ne ñu wóor lañ ne ñii nañu waxtaan tànn ba ñu waxtaanee ci tënk ñu tànn Seydina Ousmane Ibn Affan xam nga kon loolu ba tey mën na gën a yokku coow dafa mi yonente ba léegi dañuy jàpp ne ñoo ci gën a yey ndax nangam nangam Seydina Ousmane bañ ko falee nag moom it lu bari am na fa ndax révolution daa am ñu jàpp ne dafa nekk xalifa boo xam ne dafa nooy xalifa boo xam ne day fal ay mbokkam ñu yor nguur gi di yàq di yàq xaalis bi tey dëgg dëgg bari woon na ci ay mbokkam ñoo xam ne ni ñu daan doxale loola yàqal na ko lu bari dañ leen a fal ñu nekk di toroxal nit ñi di tàmbalee noos yu bare bari ñu koy tàmbalee yàq nit ñi nag daal di ñëw daal ne kon moom la wax dëgg yàlla moom moo waroon li jën xalifa da a xam li xew tuumaal ko daal fexe ba ray ko ci ray boo xam ne teguwul fenn ray boo xam ñu ko rey nag moom it coow la amaan na fa coow lu rëy rëy rëy sax man nañu jàpp ne moom it bokk na ci déclencheur yi nga xam ne moo gën a mag mooy mooy mooy mooy ray goog ñu rey Seydina Ousmane li waraloon mooy Seydina Ousmane daa bokk ci famille banu umayyata gis nga nañ dellu ca cosaan la la ma njëkkoon a wax ñooñu nga xam dañoo yàgg am jafe-jafe ak famille yonante bi gis nga moom foofa la bokk kon moom buñ ko falee ñu gis na day fay fal ay mbokkam day def nangam moom nag ginnaaw bi ñu rey ko xeetu coup d'état ah ñoom it ñi nga xam ne ñooy banu umayyata daal di tuumaal nag famille yonante bi salaa salaam mooy daa tuumaal Seydina Aliyu ne ko kon yow sa loxo setu ci <laughs> sa loxo setu ci ginnaaw bi ak ansaar maanaam saxaaba yeeg ñëpp daa dem ak nit ñi dem jaayante ak sayidna ali nga xam mo wara nek kon 4e khalifa yonnati bi alayhi salaatu wasalaam gis nga yefi xawna gudd sayidna ali ibn abi talib ñu ne mom kon mom lañ fal mom mom ñëpp d'accordon ci mu nek khalifa waye nak muhaawiya me nga xamne banu umayyah la bok moy seen ñaari giir yag am problème dafa lànk mom dafa lànk sayidna ali ibn abi talib it fekk na momit mu bëgg folli muawiya mom ndax ko ndegem nit ñi dañoo jàppoon ne waa banu umayya fal gi ñu leen Seydina Ousmane Fall ak nangam nangam dañuy yàq nangam te xam nga ñoom ñaar seen ñaari famille yi am na jafe-jafe boo xam ne yàgg na lool bokk na ca problème yi mooy mu bëgg koo folli Muawiya daal di bañ fekk moom it fañ ko faloon dafaa yàgg lool waaw xam nga bu fekk dañ laa fal fenn nga dem ba yàgg fa yenn yàggee day da dem ba dëkk bi boo wëttandikut mën ngaa def sax coup d'état mën ngaa dem ba dëkk bi sax yow nga far ko moom moo tax boo seetee tubaab bi ñu yeewu lañ bu ñu falee kenn benn poste bu ñu ko joxee benn poste bu ci kanam koy changé ndax dañu bañ mu yàgg ne day dem ba nit ñi gëm ko waaw bu tàmbalee nit ñi di ko tàmbalee kii rek ñu folli ko ñoom noonu la ñuy def fekk nag Muawiya moomu foofu dafaa yàgg ndax Muawiya dafa amoon mag ju tudd Yazid xam nga am na doom ju tudd Yazid waaye dafa am mag ju tudd Yazid nga xam ne magam la doomu Abu Sufyan ci Banu Umayyah Abu Sufyan ibnu Harb ibnu Umayyah eh, koku ci jamono Seydina Abubakar Siddiq lañ ko falon fofa sam eh, du sam lip, bu fekkone ab region la dal ñu ne ci euh commune rek lañ ko fal koka bam faato to sande khilafa sayyidina umar ibnu ibnu khattab sayyidina umar ñew di jale baye moy Abu Sufyan ci la sayyidina umar jëlaale décret momit ko moy khalifa jullit ñi dal di remplacer yesid mom mu ne ko nako Muawiya remplacer bobu la Muawiya fal kon Muawiya ci jamono ibnu khattab la fal won yagna Euh, te Seydina Omar xam nga moo gën a yàgg ci euh, nguur gi daanaka wala bokk ci kilifteefu jullit ñi kon yéesi euh, awee yàgg na fa léegi nag Seydina Ousmane bi mu ñëwee nga xam ne moom awee ñoo bokk ñoo bokk benn famille mooy ci ban banu Umayyata la bokk ngeen bàyyi xel dafa gën a kon moom du moo ko far waaye dafa gën a dëgëral nguur da koo mujj jox nag région bépp ci misaal waaw mi ngi mel ne bu fekkoon ne Bawal la ñu joxoon ko ci benn dëkk moom dafa ñëw jox ko Bawal gépp mujj kon Muawiya gën a am doole léegi nag yàgg na fa yàgg boo xam ne jaxasoo nag ba nopp Muawiya doon politicien boo xam ne dafa yeewu lool am xel xam ni muy téye nguur xam nangam yàlla may ko xel yàlla may ko xel mu yeewu lool kooku xam nga dafay yàgg yàggaay boo xam ne boo tëbee tëb rawatina famille boo xam ne da ngeen yàgg am problème yàlla dugal xilaafa gi ñëw ci Seydina Ali ibnu Abi Taalibin ah nga bëgg ko daal di folli loolu day nekk jëm mu daal di lànk moom daal di lànk ba nag boole ci nag tuumaal Seydina Aliyu ak euh, famem daanaka ak famem ne li li rey Ousmane ñoom seen loxo jugu ci waaw moom daal dafa jug na daal dafa bëgg a fayul Seydina Ousmane daal di su ko defee nag ñam ñam nekkal mooy waa Saam daal di ànd ak moom coloo la ñi bokk ak moom giir ànd moom coloo la ñu daal takk xare ne day dal ci Seydina Aliou ñu xare xare bu metti te daw yaram ndax xare boo xam ne ay julliti keese ay junni junni faatu ca mu ñëw attaque Seydina Aliou donte nag Seydina Aliou moo ko mujju moo ko mujju gañe waaye comme politicien la bu yeewu moom Muawiya mu def ay pexe fexe ba yëfee génn ca Euh, tabaarkàlla ginnaaw bi ci la Seydina Ali ibnu Abi Talib radiyallahu anhu daal di faatu faatuwul ci xare bi nag nga xare bi moom Seydina Ali ak ñi mu àndaloon ñoo ko ñoo ko gañe mu ne maxarakatu Siffin maanaam ñaari kuréelu jullit ñoo jàkkaarloo incha allah rabi dañuy teg sunu baaram foofu boo liggéey ñu ñëw ci xare bi bi mu demee ba jeex ba Seydina Ali yu gañe la tàmbalee foofa incha allah nan la mujjee mbokk yi dellusiwaat nanu sunu. ñaarelu xaj ci sunu waxtaan wi di karbala di xew-xew bu tiis boobee amoon ci weeru xarit waaye xew-xew bu tiis boobi amoon nga xam ne ci la ñu faate sayidna Husayn di doomi yonent bi alayhi salatu wasalaam loolu waxin la ndax sëtam la waaye sët dañ koy wax doom yonent bi loolu rek la daa wax sama doom muy xew-xew bu tiis lool allah ci xaaj bu njëkk bi nettali woon nañu yenn ci causes yi muy xew-xew yi nga xam ne daanaka moo jiitu xew-xew bi teyit moo ko jur ci la bàyyi ko daanaka ndax bokk ci li ñu tëdd déclencheur yi Seydina Ali ibnu Abi Taalibin bi mu jëlee xilaafa gi jullit ñi jaayanteek moom jaayante ko wér te mu folli Muawiya mi nekkoon gouverneur ca Sham waaye boo fekk Muawiya yàgg na fa lool ba am fa doole te nekkoon ku yeewu ku mën a politique nit ñi jàpp ko jàpp go xamne neexu ta folli mu daldi lànk wona pe boole ci nak tumal Seydina Ali ibn Abi talib deug deug nak tumal lo xamne mom teggul fenn ne loxom jugul ci far gi ñu far Seydina usman ibn Affan radiyallahu anhum jamian lola tax mu tak xare ku ne xam ne Ali bim jele khilafa gi nekutun madinatul munawwara waaye dafa defon kufa ne day xex Seydina Ali xex bu metti xeex boo xam ne ay jullit ñu bari ñoo ca faatu ñu bari loru ca wax dëgg yàlla dégâts yi bari loolu ci biir jullit ñi ay julliti neen waaye yàlla dogal Seydina Ali mujj gañe xare bi Muawiya comme politicien bu yeewu la woon ànd ak ñu yeewu ñu daal di def ay pexe eh, fexe ba ne nañ négocier ci négociation boobu nag comme ñoom ay politiciens lañu ñoo xam ne ñoo gën a yeewu ñu fexe ba noonu lañ mujjee ba rëcc foofu tamit Seydina Ali amaan na fi jafe-jafe bu rëy mooy ñuy tudde xawaarij waaye comme loolu taxu ñoo jóg xawaarij ñenn lañ ñoo xam ne dañ ñoon moom la ñu àndal ba mu yàgg ñu génn ne ànduñoo kenn daal léegi daal comme xilaaf ak jullit ñi dañ koy xëccoo dëgg-dëgg xëccoo amutoon ndax Seydina Ali moom moom la ñu fal légalement amul werante moom la saxaaba yeeg ñépp fal ko mu leer nañ ñi xëy na Muawiya moo ca profité rek ne day laaj dereti Ousmane su ko defee indi ci ay coow yu bari ba ay xeex am ca waye ñom ñu jóg nag daane dal comme dañuy xëccoo yëf yi ñun faruñu fii faruñu fe ñun annu ñok ànduñoog Seydina annu ñok Muawiya fofu nak fi la Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ak faatoom fofu la bayiko ko ndax xawaarij yoyu mbokk yi ñom biñ jangate biñ étudier problème bi daño waxtaan bu doon léegi ñu ne dañoo def benn congrès boo xam ne bu secret la kenn yëgu ko congrès bi ñu ne ñu ne l'islam daal mi ngi waaj a yàqu te ñoom ñaar ñii ñoo koy waaj a yàq wala sax ñett sayidna ali ibnu abi talibin ak sayidna muawiya ibnu abi sufyan ak amr ibnu al-aas nga xam ne moo nekkoon gouverneur ca misra amr ibnu al-aas daanaka moom muawiya ñoo ànd ñu ne daal dañoo seetlu ne ñoom ñii wax dëgg yàlla magi saxaaba yi ñoo bëgg a yàq diina ji ñoom ci seen gis-gis bu dëng ñu ne kon ni ñuy def mooy lan mooy lañ leen fi jële nañ leen éliminer ñoom ñett ñëpp loolu moo nekkoon plan bi ba tey maa ngi ci Karbala de waaye lii laytaay la ci yàlla mi dara tawut Amr ibn al-Aas mais ñu bëggoon a rey ma nekkoon góor na ca Misra yàlla dogal mu échec mujj ñu ko rey ndax dañ ko doon tëru te yàlla dugalut fañ bëggoon mu dal dalu fa Muawiya ibnu Abi Sufyaan mi nekkoon gouverneur Saam mu nekkoon dëkk bu rëy a rëy rëy mu jiite ko am doole am arme moom it yàlla dogal na jam nañ ko sax nag waaye fañ ko jam dafa nekkul fu li ñu tudde bu portant dañ koo jam rek daanaka ci pooc dëgg la lañ ko jam amoon na tooke euh, dañ koo poissonné woon jëlee na ci ay gaañu gaañu met waaye nag faju na faju ba yàlla dogal wér na tane daal dundaat na lu yàgg ci ci xalifaam waaye nag sayidna ali ibnu abi talibin moom yàlla dogal na ba fajar jotee rek mu génn di julli ji ci mbooloo mi ci la saay saay ba ibnu mal abdourahman ibnu maljam da fekk sax la taxoon ñu wax ne abdourahman ibnu maljam li tax mu bëggoon ko waray mooy lan am na ñu ne ci jigéen dong la bàyyi ko ci jigéen dafa dem rek bëgg a labat jigéen ju rafet jigéen ji ne ko daal xare bi fi amoon sayidna ali min jiite woon ko ci lañ raye sama nangam sama nang sama proche ci lañ leen raye léegi boo ma bëggee takk daal can li mooy da ngay dem ray sayidna ali ibnu abi talibin radiallahu anhu moom mu daat koy tëru bokkoon ci pexe yooya moom nag yàlla dogal ne moom lañ faat waa ji ko jaas joo xam dañ koo tooke ko ci bop ndaysan mu muda di Agusuf, suuf waye teewul mom mi ñu japp ko ay sayidna ali ibn abi talib ko mandu la sahaba yi dal kenn du ñom mota alquran nan fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw yeen ñi nga xamne ne ñew ci ginnaw sahaba yi bu gor lo am ngeum gu melne gi sahaba yi am ah wax deug yalla kon de gindiku ngeen waaw ñi ñewati ginnaw ginnaw sahaba yi bu fekkee am nañ ngëm gu mel ne gu saxaaba yi kon de gindiku nañu kenn du ñoom waaye téewul rek mu daal di joxe dénkaane bu rafet ñu ñu ne ko jàpp nañ ko de diw la nangam nangam mu ne bu fekkee yàlla dogal na ma wér ci lii day fekkee dinaa ko àtteel saa bopp bu ma ci jaaree faatu nag xam nga kon rey na nit waxuma la sax nit waaye ab xalifa la rey ku tedd la rey ku bokk ci gën ci àdduna la rey ne ko su boobaa nag kon na ngeen ko nangeen ko rey mu ne waaye feeg booba nag bu leen ko fitnaal bu leen ko mettital te bu ngeen demee ba di ko rey na ngeen yem ci moom bu leen dem di fay ci ay mbokkam ko ne ngeen rey ko déedéet moom rek moo def njombe kon nañ yem ci moom képp gis nga maanu gii waa gis nga maanu gii mhm. kon na Aliou ci nii la génne àdduna euh, faatu léegi nag comme mu Muawiya moom moo nekkoon ki mu doon jàkkaar lool Muawiya lànkoon Muawiya nag daal di far nag jël xilaafa ki benn yoon nag ndax ñoom ñaar ñoo fi nekkoon Muawiya moo lànkoon nguur moo lànkoon xilaaf ak Seydina Ali ibnu Abi Talibin léegi Seydina Ali faat na Muawiya nag daal di far nag yor nag nguur complètement nag waaw léegi moom daal di nekk nag kilifa ak jullit ñi yilif leen incha allahu taala kon Muawiya noonu la noonu la faloo Muawiya mii nag bi mu faloo dem bay génn àdduna daal di bëgg a samp doomam nag foofa la problème ba tàmbalee nag waaw foofa la problème ba tàmbalee waaye loolo dañuy teg sunu baaraam foofu. inshallah am fenen fuñ jaar ba ñëwaat foofu inshallah mbokk yu teddi di husayn di doomi sayyidatuna fatima di doomi sayyidna ali ibni abi Talib radiyallahu anhu di setu yonantu bi alayhi salatu wassalam sayyidna husayn moy kan ci teunk sayyidna husayn de daanaka man nga ni rek ghaniyun ani taarif daanaka jërul nga diko xamle wax ku ku ñepp xam la ku ñëpp xam la ndax maay sëtu yonant bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi salaatu wasalaam moo jur sama yaay faatima moo nekkoon doom ju ndaw yonent bi moo nekkoon doom ji gën ndaw ci yonent bi alayhi salaatu bi muy génn àdduna Fatima dong la fi bàyyi alayhi salaam yonent bi jiitoo ko juróom benn weer wala bi muy sukkuraat daawoo sayyidatuna Fatima daat koy déey am lu mu ko déey daal di jooy ndeysaan ñu toog ba ci kanam yonent bi waar ko mu ñëw mu am lu mu ko déey Fatima daal di ree bi yonent bi génnee àdduna sayyidatuna Aïsatu radiyallahu laaj ko nee ñu sax laajoon na ko avant yonent bi faatu ay mu ne ko ah yonent bi wax di ko wax kenn gis nga leen bi mu faatoo mu ne ko ne wax ma ko kam yonent bi faatu na mu ne ko daf maa woo déey ma ne ma day sama dig jeex na damay faatu sama feebar bii dama ciy nar a faatu nee na looloo tax ma jooy waaye mu waar ma nag ne ma su ma faatoo yaa may njëkk a fekk si ci sama njaboot gi Eh, moo tax juróom benn weer rek sayyiduna fatima daal di génn aduna fekk yonent bi alayhi salatu wassalam allahu akbar eh, xuseynu mii nag ñuy wax moom mi ngi juddu ñeenti at ci ginnaaw gàddaay gi bi yonent bi gàddaay ca ñeenteelu at ba fekk yonent ma nga nekk madinatu munawwara sayyiduna fatima nekk foofa ak ali foofa la gane aduna madinatul munawwara nekkoon ci weeru dañu wax ne sax sayidna ali ibnu abi taalib da koo woon xarbu xam nga arab yi loolu seen aada la bu ñuy tudd tur tur bi dañ koy tudd turu njàmbaar xam nga xarbu mooy firi xare xare loolu lañ ci daa jublu rek mooy ngir mu mën a xeex nekk nekk jàmbaar waaye nee ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko laaj na ko waa ngaa tudd ba noppee mu ne ko waa mu ko loo ko tudde mu ne ko xarbu yonent bi ne déedéet eh, tudde naa ko xusayna fekk xam nga amoon naa mag ju tudd xasan ñu bari nag dañuy defe ne ay seex lañu dañuy def ne alxasan ak xuseyn seex la nga fii ci réew mi bari nañu nekk ay seex ñu tudd leen ko waaye duñ ay seex alxasan mooy magi xuseyn xasan moo njëkk a judd waaye nag magewu ko lu bari lool magewu ko nag lu am solo magewu ko lu am solo ay tofo rek ay tofo yu sasolo yu sasoloo sax lañu alxasan mooy ku rafet ku rafet lu rafet xuseyn nag dafa dañ koo tasxiir mooy ku rafet ku ndaw ki xanaa kee mooy ko mag ki kii mooy kii mooy ku ndaw ki kon yonante bi ci boppam moo ko moo ko tudd Seydina Xuseyn mii ñooy waxtaan yonante bi moo ko defal li ñu tuddee toqantal maan dafa jël tàndarma sallallahu alayhi wa sallam daal koy yëy allahu akbar ndaw toqantal lu tedd waaw tàndarma ju yonante bi yëy ci gimiñam ba mokk mu sexal ko Xuseyn mooy ñam yu mu njëkk lekk allahu akbar loolu day tawféex la ju yaatu ñoom ñaari ñooñu nag yonante bi bëggoon leen bëgg gu jégg dayoo gu jégg dayoo lool imaam Ahmad mi ngi nettali jële ci Abu Hurayra mu ne amna jimmi bis yo xamne yon dañu tok yonante bi di ñew ndeysaan mi ngi leen gaddu manam mi ngi leen yegal ci ay mbagam mi ngi leen fop bi ñew ñu ko yonante bi sallallahu alaihi wasallam euh, sa ñaari doom yi da nga leen bëgg lool mu ne ah moom day kep ku leen bëgg ba yekku ci xolam nako woone bëgg na ma wa kep ko xamne bëgg nga leen wallahi bëgg na ma manam bëgg ma bokk na ci li li wone ñoo xamne bëgg nga yonante bi moy nga bëgg wa kërëm ñoñu wa kërëm bu ñu ko bi alayhi salaam daa am lu ñu ahlul bayt borom xam-xam wax ci ay wax yu bari ahlul bayt ñan ñooy ahlul bayt ahlul bayt buñ ko waxee rek dëgg la mooy nit ki ay doomam ay soxnaa ak ñu mel noonu waaye yonent bi alayhi salaam dafa am nag leeral gum ci leeral goo xam da koo gën a tënk ba dem ci benn xadis li ñu tudd xadisul kisa yonent bi alayhi salaatu salaam daa ma a taxaw woo sayyidatuna Fatima mu ñëw sës ci moom moo sayyidna Ali mu sës moo alxasan ak xuseyn ñu ñëw dugg ci biir mu daal di jël am balaan wërale leen ko mu warale leen ko daan na yàlla ñii ñooy sama ahlul bayti maanaam ñii ñooy sama ñoñ daal di jàng aaya ja innama yuridu llahu li yuthiba ankum rija ahlal bayt wa yutahirakum tathira nee ñu soxnaam sa tudd umu salama ne ko ah man nag bokkuma ca mu ne ko ah yow nag soxna nga te soxna moom amaana seen diggante jeex mu delluwaat ca baayam kenn kenn ku nekk daf mel ne kala jur fa nga ba kon bu ñu wax ne ahlul bayt rek moom ñëpp dañuy dugg waaye yonante bi moo ko tax siis kon dafa mel ne ñu ñooy ahlul bayti yi nga xam ne ñoo gën a ñoo gën a jagoo ñoo gën a jagoo muy yonante bi alayhi salaatu salaam sayidna ali ibnu abi talib sayidatuna fatima alxasan ak xuseyn yonante bi moo leen moo leen sàngoon ca mbalaan ma jàng loola waaye baatu ahlul bayt nag gën naa yaatu loolu moom boroom xam-xam ña ngi ca ña ngi ca coowee ñoom jëlee nañ ci at-Tirmisi yi anas ibnu malikin surga bi yonante bi alayhi salaatu wasalaam laaj yonante bi alayhi salaatu wasalaam ne ko waaw ñan nga gën a bëgg mu ne ko ñoom ñaar alxasan ak xuseyn ba de sayyidina burayda ba tey mang ci xuseyn moy kan rek ngir nga xam waccu ay mu am neena benn bis yonante bi da doon khutba ndaysan nek ci khutba bi waye neena na dugg si di lëfër lëfër mi ngi sol euh, yere yo xam dafa mel lu ko upp yonante bi da ko gis rek ndaysan muntu agal khutba bi ndax da ko beggon bëgg gu jéggi dayo nga ne yonante la muju wacc <laughs> da muju wacc ñew dabiko ñew dox dajje ak mom bu ñewé kott go fon ko daan ah, suñu borom day la wax ci alquran innama amwalukum wa awladukum fitna seen alal ak doom daal fitna la mu ne yàlla wax na dëgg de kii de ni mu ko bëgg bëgg gi moom jéggi na dayo ba mënumaa sax àggale xutba bi faaw rek ma jóg wàcc ndabi ko kon gis nga ni mu ko bëggee at-Tirmisi yi ba tey nettali na yonente bi alayhi salaatu salaam daane Useynu mooy man maay daal mooy man maay moom nee na warit yàlla de képp ku bëgg Useyna yàlla bëgg na ko képp ku bëgg Useyna yàlla bëgg na ko nettali yonent bi salaa salaam daan wax ne àjjana day eh, waxambaane yi mooy ñi nga xam ne ay jeune lañu ñii nekk seen kilifa mooy alxasan ak xuseyn waaw maanaam àjjana bi ñi xam ne ñooy nekk seen seen kilifa seen sang nee na moo di alxasan ak xuseyn lu dul nag ñi nga xam ne dañoo nekk ay yonent eh, te xëy na nekk nekkoon ay waxambaane daanaka abu hurayrata yal na ko yàlla gërëm nee na benn bis yonent bi salaa salaam doon na julli gee waaye ne ñoom ñaari sëtam yi alxasan ak xuseyn yonente bu sëggee di sujjoot rek day ñëw war ci bopp sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaam day ñëw war ci bopp bi su ne yonente bi day yàggal sëgg ba lool léeg-léeg yonente bi da leen di téye daal di siggi daal di leen fopp daal di leen wàcc nga xam ne noonu la noonu la saxoon noonu la saxoon am na beneen xadis boo abu Harera, dafa wax ne alxasan moo ko daan def ba ndeysaan bañ jullee ba noppi ma a yonent bi ah teema la ko joxal yaayam sayyidatuna Fatima yonent ne waa yóbbu waaye ne bi ma ko cas di ko yóbbu daa am melax goo xam fekk daa lëndëmoon dafa lëndëmoon lool nee na dafa am melax goo xam dana tay mel man lay niital nee na ma ma may jaar ci leer gi di jaar ci leer ba àgg ba jox ko waajuram nee na melax gi doo ko doo ko dellu xam ne loolu karaama la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana wax naan képp ku ma bëgg na bëgg ñaar ñii muy alxasan ak ak ak ak ak xusayna ndeysaan bi yonent bi di génn àdduna nag booba daanaka ñoom eh, ci fukki at daanaka rek lañ toll waaye saxaaba yi Seydina Abubakar Siddiq ñoom ñëpp wax dëgg yàlla magi saxaaba yi dañ leen a bëggoon bëgg koo xam ne ca dëgg-dëgg jégg na dayoo ngir wax la rek Xuseyn wàccuwaay bi nga xam ne am na ko waaye ñoom ñaari nag rawatina Xuseyn mii ñuy waxtaanee nekkoon borom xam-xam bu mag lool lool lool ci alquran ak sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam njàmbaar gi nekkoon ci baayam ndax ma nga ne bokk na ci ñi dàq xeex ci saxaaba yi yàlla moo ko defaloon ak ñaanu yonante bi alayhi salatu salaam li mu def ci wàllu xeex ci wàllu lislaam kenn xamul nu mu toll wax dëgg di tudd fii ay ngëneel yi Seydina Ali moom day tax waxtaanu jël beneen tournure te ñun loolu taxuñoo jóg te loolu fees na le téere yi lañ ko nettali ci ay njàmbaar kon al hasan ak al husayn ndeysaan noonu la leen yonent bi alayhi salatu wasalaam bëggee woon yonent bi salaatu salaam li ma ta xam nag moo di lii ñuy nettali di Karbala amna sabab bo xamne mom batin la walu batin da cee dugg dafa mel ne li ñu tudde inévitable la won manam mënto na ñak am yaronte bi alayhi salatu wassalam ummu salama mo netali neena amna am bis bo xamne yaronte bi day daf ma waxone ma tay day damay am gan ganu malaka ndax ma taxawal fe kenn bu kenn ñew waaye ne ma taxaw fofu ku ñew rek ma deppiko ko um salama um salama soxna su amul moram la soxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku jambar lol neena waaye Xuseynu ñëw Xuseynu doon gone ma diggante maam ak ak sëtam nee na mënuma koo téye wax dëgg yàlla ndax xëjuma seen diggante ma bàyyi ko mu jàll nee na Xuseynu ñëw yonante bi jël ko teg ko ci ay penkam teg ko ci ay ay tànkam noonu maam di def nee na nag malaaka mi malaaka yi ñu daa ñëw dañ daa yor ay jëmm nee na malaaka mi ne yonante bi salaa salaam ndeysaan sa doom ji de xanaa da koo bëgg lool yonante ne ko kii kay ëwmu ci moom sago mu ne ko cey moo ne day sa xeet wi sa nit ñi sa jullit ñi ñoo ko nar a rey ñoko nara ray a ne ko barab bañ ko nara ray ma nga tuddu karbala bo bëggee ma wan la suuf si malaaka mi malaaka daa gaaw daa di jóg léegi ca saasa dem tibb ci suuf sa andil ko yonent muy suuf su ne ñu ummu salama sax tibboon na ci suuf sa ba fas ko ci fu siram yonent bi tak daa di joy yu metti lol ci ni bëggee domam ji ak fi nara mujju amna benen bo xamne ummu salama fa fek yonent bi muy joy mu ne ko waaw loy joy yonent bi salas ne ko jibril day moma ma xamal ne ma sa ji di xuseyna danañ ko rey ci suuf so xamne karbala lay tudd kon xam nga li wax deug yalla mo jitu kon bir mi walu batin da ca batin da caa dugg eh, bok na ca yoyé tamit ma leg mang ci sabab yi sabab yi nga xamne ne la yoronte bi dafa waxoon ne suma ma aduna day ñi nga xamne dañ ma fi wootu ma nga ne dañ may wootu wootu bu jaar yoon neena na diru fanwéré at lay doon nee na bu loo fanweeri at yooyu jeexee nag nguur mooy am nguur gi njëkk am dana tane waaye nguur ga ca tege nag nguur gu metti lay doon maanaam nguuru euh, dictature lay doon ñu gis ne bi ñu xoolee Seydina Aboubacar lim toog xalifa Seydina Omar lim toog Seydina Ousmane ak Seydina Ali ba bañ koy faat booba dañuy gis ne fanweeri at la daanaka yu manqué ay weer te Seydina Ali bi mu faatoo dañoo jaayanteeg Alxasan mooy ab taawam Alxasan mooy magi Xuseyn Alxasan weer yam toog. day motli fanweeri yonante bi salaa salaam waxon te li kat ginnaw bi lañ ko kalgil gis na lepp dafa tollo kon buñ xolé ñom ñent khalife liñ tok ak al Hasan doomi ali lim tok fanwer adde yi day mat sëkk fanwer adde fam fam mata rek Hasan, gis na julli ñi dañoo tasaro muhaway muhaway ma nga fe yor ab parti ñega farfe ñega farfe ci lañ andi nak ab mom al hasan magi Xuseyn mi ñi waxtaane da waxon muawiya ne ko ndekam julli ni ni la mel te man wax deug yalla euh, bañ naa li fi amone sama sama wajur ay dere di fi touru ñu ay julliti neen di euh, lol dal daal wut legi ni may def moy damay jël nguur gep baye lako nga yor su ko defé nak yow bo ba joggé fi kon ñu ñu déggo ci ne kon man ma ci tege ñu daal di déggo ci loolu signé contrat ci loola euh, ci ñu wax ne kon léegi julit ñepp genn kaddu la ñam lepp dañ koy jox Muawiya ibnu Abi sufyan Al Hasan daal di genn loxom ci nguur gi bu sëñee nag Muawiya bu fi jige prince héritier moy ki ka wara don moy moy mooy waliul ahd ñu ne kon ñu ne kon Hasan la waye lola kat mujul jur jam kon bok na ci sababi batini la la bëggoon wax mo yoronte bi lim waxon waxoon ne nguur fan wéré at nguur ay ñew kon gis nga Muawiya mo tambali nguur gi waaye nguuru Muawiya deug la bari na ay contest ay contestation bari na luñ ko tumal bari na nangam waye nak ginaaw bi doomam yeesin ñewé ne ci lañ xamné ne ngiru dictature ba yonenté bi doon wax nak aha ci la doo ko tàmbali nag kon gis nga li lepp dafa melni lu yalla rëddoo na loo xam ne su ci mëneesu su ci ñaka jaar hasan bi lolu amé muawiya tok yor khilafa gi ah waye dañoo muju daal di posé ne xasan nag dañ ko assassiné eh, soxnaam su xam ne jaada eh, jaadata bintu ashas eh, lañ fay xaliss jox ko posan mu defal ko ko ca Euh, juróom-ñeenteelu fan ci weeru tamxarit mu doon léegi ñu ne jamonoy reer tamxarit yi mu lekk ko ba mu ko lekkee rek léegi ne ah man de lekk naa musiba euh, yàgg nañ maa empoisonné waaye empoisonné empoisonnement bii dey doy na waar ndax wax nañ ne daana tifli deret ba tifli lu tolloog daanaka a bool bu ndaw daanaka def tifli deret nga ne soxna so am na nag ñu tuumaal Muawiya ne Muawiya moo ko fay xaalis ndax li mu bëggoon mooy doomam toog te bu faatoo kon xasan moo war a toog ngir éliminer ko mu fay soxna soosee ne ko boo ko defee ma jox la nangam ci xaalis su ma noppee takk la waaye ba ko soxna sa faatee Muawiya ne ko déet kuy faat jëkkëram moom mënu ma ko takk am na ne déedéet Yasiid doomam moo ko def ndax Muawiya mu ci intérêt moom toog na ci xilaafa ba noppi yor na nguuram ba noppi kon ki nga xam ne moo war a ñëw ginnaaw bi nag mooy Yasiid moo bañ bàyyam jóge bi xilaafa gi di génn seen famille di dem ci famille Banu Haasim ñu ne moo tax mu def loola yàlla xam waaye soxna soosa lañ wax ne moo ko moo ko empoisonné bi nga ko empoisonné nag ci la Muawiya euh yor nguur gi bi Muawiya nak bim mu ba fi waji joggé rek rek ta mu fi joggé nak mu bëgg samp doomam lool nak mo indi problème bi nga xamné mo gëna mag allah mooy sunu ñetteelu jotaay bokki dir subhanahu no sunu ñettelu jotay ci netali mborum Karbala muy xew-xew bu tiis bobé xewon bañu ray ci sëtu yonnante bi alayhi salatu wassalam waaye sangub jullit ñépp sangub mboolem ñi sahid boore martir yi mooy sayidna doa doomi sayidna ali ibn abi talibin ak sayidatna fatima alayhim salaam ñoom ñépp defe naa nettali woon nañu ne karbala mbirum baatin dugg na ji ndax yonent bi alayhi salam wasalaam laata muy génn àdduna dafa mel ne wonoon nañ ko ko ah, ba ko ummu salama fekkee muy jooy mu laaj ko looy jooy mooy bu Imam ahmad génne mu inna Jibril axbarani anna bni hada yuqtalu bi ardin yuqaalu lahu karbala sama doom ji di xuseenu nga xam ne ko ba jibril moo ne ma dañ koy rey fañ koy rey nag mooy barab karbala xam nga loolu yàgg na waaye bi nga xamee ne sayduna ali ibnu abi talibin mooy seen waajur génn aduna àdduna wax nañu saydna ali biñ ko jame noonu joxe woon na bu am solo jox ko ne ko na nga gorlu ba bul xaritoog ñii ma lay waja wax ko xamne ab dof la bul xaritoog mom de man na la yakal sax ta day defe na dara jariñ waaw xarit bo xam dafa dof neena baxut wara fi sax dañ naan non bu yewoo ko gën ne ko bul xaritoog koo xam ne ab kat la wa kat bu ñewé di la laabiré laabiré laabiré du ca du ca sincère du ca sincère lam lay indi lepp du nek information yu wër bul xaritoog ko xamne dafa nay ndax ku nay moom lépp lu baax rek da koy jël féetale boppam waaye ab naafiq nag na wattandiku boo xaritoog moom dalay jaay am naafiq moom attan na laa jaay jaay say mbokk yépp ngir moom tedd ngay boppam rek kon bi nga xam ne alxasan moomu faatu na ci anam yi ñu la wax ñu empoisonné ko ñu ne Muawiya la ñu ne doomam la Muawiya des ci nguur gi léegi nag euh, cause bi nga xam ne nag dëgg dëgg nag mooy cause bi nga xam ne moo gën a jege ci xew-xew bi maanaam mooy li tax Karbala am dëgg-dëgg ginnaaw sabab yee nga xam ne moo weesu woon tudd nañ xilaaf ak yonante bi salaahu salaam niñ ko yàgg xëccoo tudd nañu ñaari famille yi jafe-jafe yi ñu am waaye cause bi nga xam ne moo gën a jege nag moo di Muawiya bi mu toogee ba xaw a tàmbalee ñaaw njortu ne moom xëy na ak dundam leeg mu jeex ah dafa bëgg a samp doomam nag te daa bëgg samp doomam ci bi muy dund da bëgg jullit ñëpp ñëw jaayante ne bu fi jógee doomam moo war a toog doom ja mooy kan mooy Yazid ah loolu nag andi na jafe-jafe yu met tey ci doole la ko bëgg a nak nag loolu doy na waar booba Yazid mii doomam 35 ans rek la am bëgg yilif jullit ci àdduna bi yëpp xam-xam ak expérience am booba saxaaba yi ñu bare bare bare ñi ngi fi wax dëgg yàlla euh, mu bëgg leen a jiite bëgg leen a forcer loolu xam nga jafe-jafe la moo tax nag Muawiya tàmbali nag di lal ay panaam fexe ba gouverneur yi mu amoon comme moom moo nekkoon buur bi buur day am ay gouverneur région yi nekk mu teg fa ka mu wóolu kooku di ko doxalal mu tàmbali ku ci nekk mu yónnee bataaxal wax ne daa bëgg ñu jaayante ak Yasiid doomam ci bu fi jógee bu fi jógee rek li ñuy tudde waliyul ahd mooy prince ne moom moo koy doon daa di yónnee ca Mughira ma nekkoon Kuufa ah moom Muawiya saam mi mu nekk moom nooy na népp moom lu mu wax rek moom la ñuy def moom yónnee ca Kuufa ñooñu wax ne d'accord nañu Ziyad euh, mi nga xam ne nee ñu aboo Sufyaan mooy baayam am na ñu koy tuumal naan ibnu abihi moom kenn xamul baayam daa di yónnee ca moom daa di yónnee nag ca Makka ak Madina fi ñu wax fi ñu daa wax Hijaaz foofa nag problème bu rëy moo fa ndax xam nga jullit ñi moom daanaka Makka ak Madina daanaka mooy jullit ñi maanaam mooy barab yu tedd yi xam ne wax dëgg yàlla fa saxaaba yi nekk fa la ñëpp booba saxaaba yaa ngi fi ak seeni doom ñooñee nag nga xam ne ay saxaaba lañ ñoo nga xam ne ñoom xam nañ dund nañu ak yonante bi xam nga ñoom yii mënuñu ko nangu ñoom ñooñu nag dañoo daal di lànk dañoo daal di ne loolu moom wax dëgg mënta nekk xel nanguwu ko na sax ñu ne dafa dafa da cee boole xaalis Abdullah ibnu Omar doomi Seydina Omar nga xam ne saxaabi la ah, am na ñu ne jox na ko boole na ci téeméeri junni ci xaalis ak doomi Abu abubakar siddiq abdullah ibnu bakr koka tamit daa rek gantal waaw abdullah ibnu Umar da lank ne lolou meunta nek abdullah ibnu Abu bakr momit neñu ah, dafa dafa Ah, xuseynu ci bopam mom xuseynu mom waxali wuñ ko momit dafa dafa lank ka wax ibnu Zubair. waaw momit dafa dafa lank boba na fekk na neñu marwan marwaan moo fa nekkoon ah, muawiya bindu ko bataxal ne ko makka ak madina nañu nañ leen forcer ñu jaayanteek yësit waaye waa ma ak Madina dañoo dañoo lànk dañoo lànk loola nanguwuñ ko waaye Xuseynu nag moom moo ci gën a tar ak mbañ ak ki ñuy wax ibnu ibnu Zubayr waaye ñoom ñépp daal dañoo dañoo bañ loolu juróom fukk ci gàddaay gi la mooy cinquante ci gàddaay gi Muawiya nu mu def dana tekk rek bàyyi ba am at jàll ñu dugg ci cinquante et mu daal di ñëw nag di acc ma kon ñëw mu ñëw na Hijaaz ñëw na ak madina ngir acc bi mi acc nak lam beggon marwan defal koko te soti wut marwan jëm nako moy gornu ba fa nek muawiya mom khalifa bi ci bopam moy president bi déplacer la bopam nak ñew bëgg dox loolu bëgg négocier ak ñoñu ngir ñu nangul xamna xam ne problème bi do nga lay bayiko ñi jëres des mën na leen jaay doole way ñi ay sahaba lañ ay sahaba no leen def xana do di leen ray ngir na ma bëgg fal sama doom loolu da nekk lu ñaaw ah, muawiya bu fàtte ne moom la ndax jébuluna ci fathu makka wala luko luko sori tan ko kooku la wax sahaba moy ko xamne rek ñew na ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jebalu a dund ak yaronte bi alayhi salatu wasallam kooku la ñuy sahabi tagina yi te ginnaaw ba nag génnaatul ci diina ci lolou la sart ci sahabi bam ñewé nak tambali di len wo kenn par kenn wo abdullah ibnu Umar waxtaan ak mom waye koka te deug deug nanguwut abdullah ibnu Abu Bakr danaka it daanaka sax daanaka daanaka daanaka daanaka déglu ko déglu ko am solo ñu ne ko daal ci dëgg-dëgg lii ngay def jaaduwut yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne sax mooy ki gën ci jullit ñi ba mu fi jógee fëlul kenn Seydina Abubakrin Siddiq ba mu fi jógee gis nga nam defoon mooy tànn Seydina Omar mi nga xam ne bokkuñu dara du da koo tànn ngir mbokkam la wala nangam nangam Seydina Omar bi mu fi jógee gis nga dafa tànnoon ñeenti nit yow yooyu yëpp defoo ci benn waaye bëgg jël sa doom joo xam ne wax dëgg yàlla jàngut xamut parce que sa doom la rek bu ko ñoo imposé nit ñi lool daal mënta nekk ginnaaw bi Muawiya amru Marwan ma fa nekkoon folli na ko daal di fal hijaz Madina Saïd ibn Aas xam Madina fa la yonante ba nekk fa la sahaba yi mujj Saïd ibn Aas bokkam la rek benn la def ci soti ba tey ci fameem la bokk mu fal ko foofa neñu nak netti nettali ne Muawiya def na foo pexe mo xamne ne li ñuy wax rek ci walu politicien bo xamne ba ci jamono ji bëri na ci politiciens yoo xam ne tubaab yi boo xoolee ñoom ni ñuy jàngalee politique am na ñuy wax naan euh, kooku ñu wax ne Machiavel ñu ne day wax ne politique moom da ngay fexe ba li nga bëgg yoon woo mën a am ko rek na yoon woo mën a jaar dictature rek euh, weddi say wax ak wax lu du dëgg rey nit ak lu man moom daal lu mu jar rek na ko nee ñu euh, Muawiya pexe mam def foofa xam nga waa Madina moom moom saxaaba yi dong la ñuy déglu ñoom lu saxaaba yi def dañuy jàpp ne kon loolu rek la mooy Makka ak Madina neñu mu xawé dafa nak dafa leen dafa leen dafa leen a xupp xam nga jox na leen alal nangam nangam way yefi soti wut leg mu ñew ci benen plan bi moy xup dafa leen wax euh wax deug dama leen warmal ta xamu leen ko heure moy nek di wax ak nit ñi yéen may weddi di may weddi ci biir mbolo mi di ma wone ne nangam nangam nangam xaman may president bi may nangam may bour bi nangam legi nak lool la loolu mom fi lay yam loolu duma leen ko mayati daal ne la gis ngeen dama wara juk dem ci biir nit ñi def ab discours discours bobé suma ko defee kenn ku ci nekk dinaa la booleek ñaari soldat ñaari soldat yi nga xam ne ku ci nekk day yor jaasi euh, nekk sawet su ma waxee ba àggal bu ngeen weddee benn baat ci li may wax moom seen seen bakkan mi ci xottu gert xam nga loolu pexe mu doy waar la ñoom ñooñu nga xam ne ñëpp dañ doon bañ ñu daal di fexe ba euh, ku ci nekk ñu def la noona boole la ak ay garde ñu nekk sawet mu xaa ne daal di jóg daal di wax li bëgg a wax daal di sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax nag li moo ko tax a jóg bu fi joge domam yesit wuutu ko daan na lol nak sahaba yi nga xam ne ñoo nekk madina lol mënu ko def ludun da ci waxtaan ñom ba d'accord mu ne waaye nag waxtaan na ci ñom ñom ñepp d'accord nañ ci d'accord nañ ci ba jaayante nañ ak yesit mi nga xam moy sama dom pour suma fi fi ñew ñëw na kon jaayante leen ah ñe kom ñing ngi leen teg jaasi ba ñi mu ñoo wax ñu ne ci yalla ñu nanguñu wax nit ñi tamit ñi ñoy seen roy kay te nanguñu wax dara ñu japp ne kon ki na diiree constant ko waxu dara kay da nga and ci mbir mi ñoom it nit ñi tamit daal di tàmbale jaayante mu kon Muawiya nii la réussir fexe ba Hijaas mi nga xam ne dafa lànkoon muy Makka ak Madina ne duñ jaayante yo nee ñu yoon wii la jaar ba ñu jaayante ci loo xam ne ay pexe rekk la loolu xam nga euh, doy na waar <laughs> kon léegi nag Muawiya ci noonu la amee waaye Xuseyn euh, ba léegi lànk na ne du jaayante euh, Abdullahi nu Subayr ñoom ñëpp lànk nañu ne daal loolu doy na waar Muawiya def na ay pexeem ay manigansam ba am la bëgg ni ci baati nit ñi waaye daal tabaarkàlla ah yàlla dogal nag euh, Muawiya daal di génn àdduna waaye laataa Muawiya di génn àdduna nag dafa woo doom ji doom ji nga xam ne moo ko war a doon moom la samp samp na ko fekk mi ngi dund daat koy dénk ay dénk nag bokk na ci lam ko dénk mooy wax ko ci Xuseyna ne ko Xuseyna mi nga xam ne mooy doomi Seydina Aliyu di sëtu yonante bi sallallahu alayhi su ma sañoon nag wax deug yalla nang ko warmal budul dara deret yonante bi alayhi salatu wassalam xamna ne nak mom mom ba rek andut ci mbir mi tayit lu man dana ko def ta mbokam ye moy wa iraq xamna ne moom duñ ko baye danañ ko wo bëgg mu ñew ci ñom su fa deme dana am doole ngir mën dal sa kaw ndax li ñu def lepp andu ci waye nak comme sëtu yonante bi alayhi salatu wassalam ma ngi lay denk lu mën a xew bul ko loolu de wa amma husayn ibn ali fala azunnu anna ahlal iraq taarikihi xataa yuxrijuhu ilayhim ne ko fa in xaraja fa zabirta bihi bu génnee nga jekk ko nga xam ne bu la neexee rey ko fasfa anhu na nga ko jéggal wala taqtulhu abada bul ko rey nag loolu ko dénkoon ne ko nag bu fekkee ne ku mel ne nag eh, Abdullah ibnu Zubayr ne ko kooku de moom moom moom ku doy waar la kooku daal xam naa ne moom bu la jekkoo sax mën naa dal sa kaw koko dal mom bis bu jeme yëngatu rek bay bo nga dag ko ay morceau morceau waaw bay bo nga nga dag ko ay morceau morceau morceau morceau morceau koko mom bu ko may dara ah bu nak da fay ñew bëgg wax dëgg yalla bëgg ñew jaayante bëgg sekk ak jamm nangam bu la woy jamm nga wokk jaway waaye koko mom moy ku danse gi ne ko ba Abdullah ibn umar mom ab jaamu ko te yalla rek la moom daanaka rek lu nit ñi def rek daanaka mu and ca moom da buñ ko baye mu yor diineem daanaka moom eh, amul amul amul solo muawiya loolu la kon doom ji yasid daa di faatu ah yasid daa di wuutu muawiya gis nga kon xel eh, gis nga kon nguur gi niñ ko doxalee te xam nga yonent bi waxoon na ne sa fanweer at yi bu matee nguur ga cay tegu kooku dana tane waaye nguur gay ñëwaat nag dictature lay doon mooy yasid mii nag waaw kii nag mooy ki nga xam ne eh, ci loxoom la ñu rayee Xuseyn ak ci ay ndigalam ak ci ay soldaaram te yonent bi salaa salaam waxoon na ko kon gis nga lii lépp day mel ne la ma la waxoon ci sababu baatin ba nga di ko xel dafa mel rek lii aw yoon la ca yéesit bi mu toogee nu mu njëkk a def xam nga kee nga xam ne moom la baayam faloon mu nekk madinatul munawwara mu nekk hijaas mooy saïd ibnul aas xam nga yéesit moom gouverneur bu bees la am gouverneur mooy walid ibnu udba ibnu abi sufyan nu mu def da ko bind leetar bi baayam faatoo rek ne ko an xuz xusaynan wa abdullah ibnu amr wa abdullah ibnu abbas bil bayati ne ko axsan sadidan laysat fihi ruxsa xata yubayiuuka wasalaam da ko bind leetar ne ko husayn ak abdullah ibnu omar abdullah ibnu abbas allahu akbar xam ne ñun ñëpp dañoo dañoo lànkoon ne ko abdullah ibnu subayr ñoom ñëpp woo leen ñu jaayante par force maanaam forcé leen ñu jaayante waaw bu leen may dara amul dara amul amul man maanaam amul leen may faa woon nañ ñëw jaayante waaw ndax Ousseynou moomu saa bàyyi dénkoon na ma ko wax na ma ci nangam ak nangam ak ak ak nangam waaw booba nag Saïd Saïd ibnu As folliku na Walid ibnu Utba moo fa nekkoon gouverneur moom mii nga xam ne mooy gouverneur bi nag bi mu ñii di leen ko wax rawatina Ousseynou euh, dañ na ko rek waaw kon may ñu ci guddi gi ñu mën cee xalaat waaye Ousseynou moom ak Abdullah ibnu Zubayr dañoo topp guddi gi fekk ñi ngi nekkoon Madina ñu dem Màkkatal Mukarrama bañ demee Màkkatal Mukarrama Ousseynou dafa dem ca baayam bee di. ibnu abbas ah, xam nga benn famille la ibnu abbas dafa dem foofa moom bu dee abdullah ibnu subayr moom daal di dem ca kaaba ga abdullah ibnu subayr nag moom dara dajal ay soldat di contre gouvernement bi di ko moo tax gouvernement bi da ko xawoon da koo bañoon lool da ko bañoon mana opposant radical lañ ko lañ ko lañ ko jàppe woon noonu la def kon gis nga ñoom ñaar jaayante wuñu te loolu xam nga du neex yesir day jàpp ne kon nguur li ko gën a jaaxal mooy koo xam ne gën koo naqari mooy koo xam ne nit ñi déggal nañ ko mu jàpp ne ñëpp dañ ko war a topp am am ay nit ñoo xam ne dañ ko dañ ko bañ a topp ndax ñoom dañoo jàpp ne dëgg-dëgg lii du ak nguur jaay doole dong la ah Yasiid nag daal di tàmbali nag di lawal ay bànqaasam yoon woo bàyyam jaaroon ak politique ba mu euh, yàgg naa euh, ànd ak baayam yàgg naa gëstu yàgg nañ ko yónni xam na état euh, tàmbali nag di def politique politique politique ak dictature ñi ku àndut moom rek dana la def dana la def mettit bu demee ci ab dëkk képp koo xam ne da ngaa lànk wala ay mbooloo yu lànk da leen di fexe ba def leen lu metti lool ni ki ray lañ ci digg nit ñi nit ñi gis ko dañuy ñëpp dañuy tiit dañ la li kii de ko ko jéem a contre nangam nangam mu ba nga xam not na nit ñi moo tax wax ne faras dax di waykat bu siiw boobu nga xam ne waykatu banu umayal umayta la woon bi Xuseyn di dem war a jëm Iraq euh, dafa waxoon Xuseyn lu am solo dara ko Xuseyn ca deug ni nit ñi mom yow lañ bëgg ndax Xuseyn bimu joggé bimu nekké mu Madina nit ñi mom lañ topor ndax deret yonante bi alayhi salatu wassalam bimu ñëwé ñëwee màkkatal mu tamit nit ñi duñ jog ci moom waaw nit ñi waxtu waxtu jot dañ ñëw ci mom dajalo mu di leen ki ndax dal mom lañ bëgg ki nak moy buur bi wax deug yalla buur mo am doole mo ra faras sax dana ko won ca deug deug nit ñi bu dé ci walu xol deug yow lañ andal amul werante Xuseyn bu sa ñëw di wër kaabe ak nangam rek nit ñi dañ koy xajal fonk ko mom ab sëriñ bu mag lañ ko jappé won tay sax mom mom mom la wala boo wésu na sax ak sëriñ euh ne ko waaye rek jasi nak khalifa bi lañ andal manam jasi bur bi lañ andal muy yasid jasi banu umayyah lañ andal moy nit ñi luñ la bëgg bëgg bëgg bëgg doole ji leen yasid tek bis bo bëgge yingut ak nangam nit ñi duñ amati wax deug yalla duñ mënati ceew dara ndax dañuy ragal ne buñ la jéemee jappalé wala ñu défal la dara seen aduna da ci yàqoo subaa kon dana dana tax ñu bàyyi la loolu nag conseil la boo xam ne moom bu am solo la waaye gis nga Muawiya tamit ni ni ko yàlla mayee xel gis nga avant muy faatu waxoon na doom ji Yéesit ne ko Xuseyn li ma wóor mooy waa Iraq danañ ko jéem a génne waaw ndax comme fii amu fa doole nit boo nekkee fenn amu fa doole boo demee ca mbooloo mu wax ne am nga fa doole kooku moom lu am solo lay doon gis bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu nekkee Màkka amu fa doole daa fexe bay dox ay relation wàllu diplomatie ba am relation waa Madinatu Munawara ba xam waa Madina yónnee fa xool ña fa gëm yàlla nañ toll am fa ay garanti yu wér doog a gàddaay dem Madina gi nga ba mu demee Madina comme am na fa mbooloo am ñu ko fa la nekk defaru ba jekk ba mu ñëw daa dal ci kaw waa Màkk mënuñ ca dara loolu la nag Muawiya doon bañ nag ne ko xasee ne moom fii amu fi doole waaye bis mu demee fële ca waa Iraq nga ne baayam nekkoon na fa am na fa ay wëllëre am na fa nàngam dana fa dem ba am doole te bu amee doole mën naa wëlbatiku daal sa kaw moo tax bul ko may mu génn waaye boo ko jàppee nag lu adduna yàgg yàgg bul ko bul ko rey loolu nag yeesit jëfewu ko ndax nguur gu dëng moom day xaw a doy waar léegi nag Xuseyn bi mu nekkee màkkatal bi mu nekkee màkkatal mukarrama nekk ak waajuram woow muy Abdullah ibnu Abbas radiallahu anhuma radiallahu anhum jamian ah, mbooloo mbooloo yi di ñëw di ko wër nga amna bour bi president bu fi nek, waye nit ñi daanaka seen xol dañ ko ragal ni rek waaye Xuseyn lañ bëgg ndax moy deret yonante bi barké lu ci mom mu leen ni war di leen delloo ci yalla ndax xam-xam bu bari bi mu yoroon nak nag la Muawiya ragalon amna nak muy waa Iraq ñi ngi tambali nak di def ay délégation di ñëw di seet si diko di diko wax ne ñun bour bi fi nek dafa nek bour bu jeng ñun ñu ak mom da bour bi dal wax deug yalla ñun ñu and ak liñ bëgg mooy nga ñëw génn dem Iraq ah, su boobaa nit ñi fa nekk jaayanteeg yow loolu nag ay délégation di ñëw ay déléga délégation leetar yi moom bari na ndax am na ci borom xam ne ñu ne bind nañ ko sax lu ëpp euh, juróomi junniy leetar waaw am na ñu ne déedéet juróomi téeméeri leetar leetar bu ñëw ne ñu ñun waaye Iraq dajaloo nañu ànduñoo xalifa bi ki fi xalifa bi nekk ki fi xalifa bi teg ànduñ ci moom. nangam nangam nangam wax ay wax yu bare bare bare bari mun sañoon nga ñëw fii fii la sa baay nekkoon fii la nangam ndax baayam bi mu yoree xalifa gi Seydina Ali waxoon naa la ne ne kuufa kuufa la nekk nga bàyyi xel nag ne Muawiya mi nga xam ne moo jox Yasiid xilaafa gi moom mi ngi faatu guddig rajab mooy fukki fan ak juróom ci weeru rajab ci 600 rek kon gis nga bi mu demee Màkka dem aji fexe ba euh, def pexe moomu mu def xam nga 51 la woon kon daanaka bi mu ci tegee juróom-ñeenti at rek daanaka ci la génn àdduna mooy siisaa hijriya ci la ci la ci la euh, ci la génne àdduna léegi nag Xusaynu kon waa la Muawiya doon ragal am na ñu ngi koy woo woo boobu nag daa war a dox nag jëm kar foofu nag moo indi Karbala foofu moo war a moo war a jëm Karbala di ko bind ay leetar di def ay délégation euh, di ko woo nee ñu ki njëkk a ñëw mooy Abdullah ibnu Sab ñëw na fa ànd ak ab délégation di ko woo Abdullah ibnu Waal euh, ginnaaw ñoom ñaar ki ñu tuddee Haan ibnu Haan as-Suba'i ñëw na fa amna ku ñu wax saïd ibn abdullah ah, al halafi ne ñoom ñëpp def ay délégation di ñëw di wo diko di bind ay lettre yu bare bare bare bare bare bare bare di soñu na ko gennal boo ñëwee ñu jaayante yaay sëtu yonante bi alayhi salatu salaam ah sayyidna Hussein nak nee ñu am na bu mujj ñëw bo xam moko gëna gën motiver li tax mu genn dañ ne ko yow kat wax deug yalla fim mu ki fi nek xam nañ ne du nitu diine dañ ko fay tek ci doole nit ñi bu ko top te yow yaay sëtu yonante bi alayhi salatu salaam ya ko wara donno borom xam-xam nga yeyo nga ko def nga nangam boba leg ñing lay won naa la ñëwal fii ñu ak yow jema wut doole jële fi li fi nek revolution liñ bëgg def dal ci ki fi nek gis ni muy xoxate la julli ñi ni muy defé nangam ni muy defé nangam ne ko nak woo nañ la ba sonn dafa mel dangaa lank bo yowmal khiyamé buñ ak sa maam danañ ko wax ne ko ñun day sa sët ba nga fa bayi won muy husayn mom lañ amon ci nit ku bax ko xamne man na jubanti nit ñi man na andi ak waaye woo nañ ko ba son bëgg a ànd ak moom bëgg a eh, liggéeyal yàlla ci kaw suuf jëli fi ñàkk maanu gi fi nekk ak tooñ tooñaange yi waaye dafa bañoon dañu xoseen lettre bi dafa xaw a yëngal xolam nag fa xoseen ko yeewu la waaye mu ne laata muy dem na yónnee benn benn émissaire daal di daal di woo nag ki nga xam ne mooy doomi baayam di muslim ibnu aqil aqil euh, mook sayidna aliyun ñoo bokk benn baay mooy abu talib kon ñoom ñaar ay doomi baay la ñu maanaam seen ñaari baay ñoo bokk benn baay xuseyn euh, seydna ali moo ko jur muslim ku ñu wax aqil moo ko jur aqil ak ali ibnu ak ali ibnu abi nag ñoom ñooy abu taalib mooy seen mooy seen baay mu woo ko ndax bul fàtte ne xuseynu famille yonante bi ñi ci desoon ñëpp moom lañu àndaloon moom lañu àndaloon lu dul exception bu ndaw mu yebal ko ne ko nag comme waa Xiraq dañ may woo ni ma foofu am nañ fa mbooloo te bu ma ñëwee ñu jàppale ma jaayanteeg man ñu jéem a jëlee li fi nekk nangam nàngam léegi demal nga gëstul ma nag jéem a dem xoolal ba xam ca dëgg-dëgg num deme, muslim ibnu aqil jóge madina jaar makka wut fa ñaari gidd gidd moy bo ma saan dem pen da ngay wut ñu xam yoon wi wa yalla dogal ñaari gidd yépp dañu muju faatu ndax dañu ñom ci bopam dañu reer jaar ci yoonu baxut lool sax muslim ibnu aqil jappon na ne lool day gaaf la ñi ma wara a gindi di reer day loola du tektal bu rafet waye non dañuy tek fofu sunu baram inshallah taala bo ligé sunu ñentelu jotay ñew nak ci Seydina husayn warna genn nak wara jëm ne day wuy ji Iraq muslim ma ngay dem bu agge lan lay ke iraq fofu nan lay mujjé lan la fay dund sayyidna Xuseynu ndax sahaba yu nga xamné ne ay ay ay mbokké bayam lañu sahaba yi da and ak yoon ndax danañ ko nango baye mu genn ndax danañ ko labiré buñ ko labiré numi déggé wax ci ak demam googu dal numi mujjé nga de kon ma nga waaxoo nag mel ku jëm ci ak fatom ndax ma nga jëm ci iraq ta bu jëmé iraq xam ne karbala lay yam lola naka lay démé inshallah sunu sunu lu jotay nu ñew ci sunu ñentelu jotaay di yema netali xew-xew ba amon ca Karbala ta ñu faat ca ki nga xamne ne mooy sunu sang bu tedd bi di imam Hussein alayhi salam xam ngeen ne waxon nañ ne wa kufa te modi di iraq Irak doon nañ ko yune ay bataxal bo fekk mag ca Makkatal Mukarrama nek ak bayam bobu di Abdullah ibnu Abbas di ko yónnee ay bataaxal yu bari di xamal ne ko fi dal say talibay bay yo fi nek soppe yonante bi ño fi nek nguur gi nga xamne moy nguur gu yes gi te Yazid ibnu Muawiya jite ko mom ab kàccoor la rek bo xamne day yak diina ji suko defé ñewal fi ñu jaayante ak yow ñewal fi ñu ak yow boba nak kufa ak Basra nga ñaari capital yi gëna ci euh Irak du rek ay dekk yu ndaw waye dekk yu rëy a rëy la ay ndawit ñew nañ defe naa limoon nañ ca ndaw ya nga xam ne ñoo fa ñëwoon comme abdullah ibnu sabu ak abdullah ibnu Wal ak han ibnu han asabui ak ku mel ibnu abdullah al Halafi ñoo ñëpp limoon nañ leen ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ndaw par ndaw borom xam-xamee am na ñu ne leetar yi ay junni la am na ñu ne juróomi téeméer la waaye leetar yu bari la waaye leetar yëpp xoseen bu mu ci jàng day def ci ak gaal tëj day def ci ak gaal tëj kon ñu ko leetar rek mu jóg dem xoseeru daal di jëf jëf joo xam ne jëfi xel dëgg la jëfi ko yeewu muy lii ñuy wax naa yónni ndaw ba ndaw la àgg ba confirmer confirmer ma ne ma lii ñuy wax lu dëgg la daal di jël rakkam ji wala boog doomi baayam bi di muslim ibnu aqil waxoon naa leen aqil mook sayidna ali ñoo bokk baay abu taalib mooy seen baay kon ñoom ñaar diggante xosayn ak muslim mii ay doomi baay lañu mu daal di yónni muslim nag ne ko demal ma kuufa wax ji bari na leetar yi bari na ndaw yi bari na boo demee nga vérifier ma ba xam loolu ñuy wax ndax dëgg la ci ñoom ca dëgg-dëgg dañoo soxla ku leen gindi dañoo soxla ma ñëw ñu jaayanteeg man demal xoola ba xam loola lu wér la muslim daal di jóge foofa de màkkatal mukarrama jël fa ñaari gidd waxoon nañ leen ñaari gidd sax dañoo mujj faatu waaye rek teewul Seydina Xuseynu ne ko yow daal góorgóorul ba àgg kuufa vérifier ma information bi jox ma ci xibaar bu wér muslim ba mu demee kuufa daa di dugg ba dal ka ko njëkk dalal mooy ku ñuy tudde al muxtaar waaye yeggu fa eh, sang bu tedd boo xam ne waa kuufa dañ koo fonkoon mooy waa iraq mu tudd haan ibnu urwata haan ku baax la woon koo xam ne dañ koo fonkoon bokku ca notable ya mu ñëw daal ne ko sama sayoon nga bàyyi muslim mii nga xam ndawal xuseyn la ndawal waa kër yonante bi la ma dalal ko ndax mom kilifa la ta kilifa bu joge ci dëkk bu ñëwee da wara wacc ci kër kilifa ginnaaw lolo yobbu muslim ibnu aqil fofé ca sëñu orwata mu baax moom yi ah waye muslim bim ñewé ci kufa tamit lañ ko doon bind leetar lañ doon bind leetar imam ali ah da melni lolo la tambalé gis de ci debbi bi ndax nit ñi bi yégué né husayn amna kum na nit ñi dañu tàmbali ñoo di ak mom ci turu husayn di ñew di walwali mboro mu bari ba nga wa waa dal daanaka rek buñ ko xaajoon ñetti xaaj mën nga ne kon ñaari xaaj yëpp jaayante nañu mag ak ndaw góor ak jigéen ñëpp nee ñu ña jaayante woon ci diir bu néew dem na ba ëpp fukki junni nit xam nga loolu bari na topp ko jàppe ko seenum Xuseyn mboolem lu ñu daaw Xuseyn ci leetare daal ñu di ko jëfe bu génnee ñu ji di ko jiite julli mu di leen xutba di leen waar daat fay nekk daal am Xuseyn la li nga xam ne Xuseyn mi ñëw bu ñëwee loolu fas yéene nekk ak moom moom mu tàmbali loola nit ñi di jaayanteeg moom mu leen jiite suba tisbaar takkusaan timis gee waxtu wu jot mboolo mi gën a bari jamono jooju kuufa kan moo fa nekkoon gouvernement bi gouvernement bi nga xam ne waa banu umayyata ñoo ko jiite mu Yazid président bu bees bi ñu fal ci doole ab saxaaba bu tedd moo fa nekkoon ñu koy wax Nu'man ibnu Bashir ana solo na ay hadis bokk na ci li tax muslim mi ñëw gi mu ñëw kuufa nit ñi fat ko wax dëgg yàlla muy am mbooloo bokk na ci li ko yombal mooy gouverneur bi fi nekkoon Nu'man ibnu Bashir ab saxaaba la ta xam ngeen sahaba yi mom wax deug yalla wa kër yoonte bi dañ leena fonk lool ak donte sax annuñ ca loola waye nak lutax nak ñu di ca réagir wala ñu di leen lor looloo taxoon muslim teel a ñëw am doole eh, ndax xam nga wons buñ la falé ab bu la défé ab góorna ci dëkk am ku ñew nek opposant bu fekke ne gouvernement dictature deug la mom xam nga doko may dara da ngay tam diko xatal ak diko jema ray waye rey ibn basir mom da don rek labir nit ñi ah bu ninyu tassare nit ñi nit ñi ko dañu dajoro ci genn kaddu nangam mooy saxaaba yi rek niñ baaxee looloo tax muslim yëfam yomb waaye nag loolu yëgut ndax kat Yéesid mi nga xam ne mooy président bu bees bi ñu fal ci doole dafa yëg xibaar bi yëg ne kat ndekete yoo waa Kuufa woo nañ Xuseyn bu Xuseyn yebal na fa ndawam bañ ñu bari ñu ngay tàmbale jaayanteeg moom moom daal dafa mel dañ ko coup d'état foofa moom daal léegi dëkk yi mu yilif moom mi jàpp ne moo yilif jullit ñépp waa Kuufa moom rëcc na ko mu bëgg a dabaatal loolu bëgg a dabaatal loola moo tax mu daal di jàpp ne Nouman Ibn Bashir ma nekk foofa dafa baax nekk ab saxaaba mënta politique moo tax mu daal di koy mu daal di koy folli moo tax rek li ma la waxoon ci waa Banu Umayya ñoom seen politique moom dafa nuroog politique léegi mooy lépp luñ bëgg yoon way tax ñu am ñu jot ko rek ñoom fa lay jaar seen yoon nekku ca ndax jub na ndax danañ lor nit ñi wala nangam ñoom seen yoon nekku ca su ko defee nag comme xam na ne lii daal baaxut mu daal di folli Nouman Ibn Bashir moom waaye xam naa Nu'maan it yàlla saa boroom comme saxaaba la yàgg ànd ak yonant bi yàlla bëgg na koo dimbali ba xew-xew yu ñaaw yi nar a xew loxoom génn ci moo tax ñu daal koy folli mu teel caa génn moom dem toogi nekk ci ay jaamu yàlla léegi nag Yéesit daal ne faw mu wut ab gouverneur bu soxor ku ñàkk teggin koo xam ne daal du faale dara waaw ndax kooku moo baax foofu su ko defee bu demee dana jëflanteeg nit ñi ci xol bu tàng jëflanteeg ñoom di leen teg lu metti su ko defee nit ñi loolu ñu def mooy bàyyi fi nguuram gi dem di jaayante keneen loolu bañu uh, mu mën leen a faye daal fay gu tàng kudai mu daal di wut nag kàccoor boo xam ne ku doy waar abdullahi ibnu ziyad waa kii nag uh, ci dëgg-dëgg uh, ku doy waar la ku nekkoon ku tar koo xam ne moom bayiwul xel ay ñii famille yonent bi laak nangam nangam moom bayiwul xel loola naka jek kat ca basara ndax ñaari capital yu jege la woon moom moo fa nekkoon waaye yesit da ko wax ne ko léegi booleel naa la ci kuufa wax ko situation ba fa nek ne ko dama bëgg na nga dem régleel mako num gëna gaawé ak lu mu laaj baxna ha lolu doyna war légui nak ndaysan muslim ibnu aqil bi ko xoseenu yebalee mu ñew gis nit ñi ak mom lañ ko waxon ci lettre lepp ñu diko jëfé ah momit comme ndaw la mu daal di bind lettre imam husayn ne ko kat ya ci dess lettre yi ñu doon bind liñ ci doon wax lepp bi ma won nañ mako nit ñi ñi ngi ak man ma ngi leen jité ma ngi def nangam yow da yow dong wala ñi xaar motax tax wax deug yalla genn gim genn tañ ko ci doon yedd mom amon na fum mu ko tegoon ci walu zahir ci walu batin nak mom xamone na lay am bu yalla dogalee da wara faatu rek faawu mu faatu moo tax ku ne yedd nako danañ ci ñëwaat imam Hussein bu deme ba wara genn sahaba yi ñepp danañ japp ci lafal mbubbam ne ko do dem bi sonu nañ ca lol ngir mu baña genn waye xamna yalla dogalon na genn gi ak nak ndekam yebal na ndaw ndaw la xamal ko loola mu ne kon muñta ñaka genn ndax kat bu dul loolu dañu am dañu am deug ci kanamam rawatina ibis penc kon muslim bind na letter imam Hussein ne ko fii daal lépp nooy na nit ñi lañ ma waxoon def nañ ko Ubaydullah ibnu Ziyad nag nekk kàccoor boobu nag nga xam ne léegi fal nañ ko foole fooli Nu'man ibnu Bashir fal nañ ko ca Kuufa mu bëri ko Basra daa mujj Basra mu teg fa rakkam rek ne ko saytul ma ko ma dem régler Kuufa bi muy ñëw daa daa yeew dafa wut ay espion ñu xam situation bi ni mu demee xam ne ñi nga xaar Xuseynu daa war a ñëw ki fi nekk dafay nekkal Xuseyn bi muy ñëw dafa ñëw rek daal di muur bopp bi bi muy dugg ci Kuufa ngir bëgg ñu jaawale ko ak Xuseyn comme xam nañu Xuseyn mi ngi waaj ñëw mu ñëw war ci ay fasam ak ay gileemam daal di muur bopp bi ndaysaan kum romb rek ñu ah dafa mel ni Xuseen noo ñëw de naan ko yaw yow sëtu yonante bi mu yëngal bopp rek nag ba mu ñëwee ci dëkk bi gëstu xool xam ne ci dëkk bi bi mu duggee ci paleem nag la doog dindi kaala gi ñu doog a xam ne kii day Ubaydullah ibnu Ziyad la moom mooy gouverneur bu yees bi ñu fi moo war a ñëw war a régler situation bi mu daal di ñëw nag daal di jëfandikoo ñaar yoo xam ne buur yàgg nañ koo jëfandikoo muy xëpp ak xupp bi mu ñëwee rek dafa yor alal ju bari lol ba nopi nak daldi di soxor lool ñaar yooyu la yoré ndax nit ñi man nañu gor gor man nañu def lepp waye bu tangor xasse ba ñew rek jafé jafé day am lam jëk def moy nañ ko bindal liste ñu mu xam ñi dëkk ci dëkk bi maanaam dafa bëgg xam xam kan moy muslim mu ne mu def recensement ba xam ñan ñan ñoo dëkk Kuufa mooy citoyen yi nga xam ne ñoom fa lañ dëkk ak ña fa dëkkut bi mu ko bindee mu doog a xam nag ki nga xam ne mooy gan gi mooy muslim muslim ibnu aqil moo fi nekk ba ca tege mu daal di woo paa yi ak notable yi ñi nga xam dañoo am tur waaw ñi nga xam dañ leen daa topp kilifa yi nga xam ne bu ñu leen waxee ñu dégg mu wala ñoom ñëpp nag wax leen ne leen gis ngeen lii bu ngeen ci duggee seen deret dana ci dugg te nguur kenn du jëflanteeg moom daal di yëkkati xaalis bu bari boo xam ne mosuñoo yaakaar ne danañ dund ba faatu te duñ ko am wala bokk yaakaaroon nañ ne danañ dund ba faatu duñ ko am mu yëkkati jox leen ko ne leen rek damaa bëgg ngeen defal ma lavage de moy dugg leen ci nit ñi seen njaboot yi wax leen ci penc yi def leen ay khutba ne leen xalé yi mi ngi mel ne ni mu jamono ji rek waaw xalé yi li bu ngeen ci dé yéenay perte yéenay def nangam bu ngeen ci duggé du ngeen ci génn bur kenn du ak mom nangam nangam maire yi ñoom té seen doom yi ciolé na ko ru ci dëkk ba di décorasé lo nit ñi lool nak ñoñu am nañ ci réussite am nañ ci réussite ñi nga xam ne dañ doon jéem a dëgërante ak bur bi nak mu ray leen ray bu ñaaw publiquement nak la koy def waaw bokk na ci ñu mel nona moy ku melne ne nga xam ne ab waykat la woon boo xam ne bu yàlla mayoon la bu waxee nit ñi di ko dégg moom nag Ubaydullahi ibnu Ziyad dana ko dama bëgg nga yéeg ba ci kaw étage bi ba ci kaw montagne bi nga xas euh, na Huseyn wax nit ñi ne leen muslim mi ñu jaay na nañ ko bàyyi nangam nangam nañ wax ne ki ñu war a topp mooy Yazid waaye xëy si yàlla da koo dimbali ba mu yéegee ba ca kaw mu daal di saaga ya gën a ñaaw Yazid ne du président dara dañ ko fay teg ci doole day rey jullit ñi day def nangam muslim mii ngeen jaayanteel ngir jaayante Xuseyn mooy yoon wax ñoom kat ñooy sëtu yonante bi lii ñoo ci gën a yey waaye na muy waxee wax ja agut mu ñu daal di Ubaydullah ibnu Ziyad yebal garde yi ne nañ dagg bopp bi nga xam ne fa mu nekk di wax lañ dagg bopp bi waddal ko ñëpp di gis ñu daal koy bëbax jëmm ji nga xam ne bi mu daanoo fa mu jógee ni mu kawee yaram dafa tasaaroo waaye loolu wax dëgg du dara waaw dee moom yaram moom lu yàgg-yàgg day mujj ci suuf moo xam dafa tasaaroo moo xam dañ koo lekk loola amul solo waaye la am solo mooy nga faatu ci ngëm yàlla faatu dajeg yërmande suñ borom subhanahu wa la def ndax dafa yëkkati kàddu dëgg waaye loola nag nekk message bu fort nag waa dëkk bépp nag daal di tiit ñenn ñi jox nañ leen alal ñu naa ñun daal nañ na muut suñu yoon nekku ci euh, euh, révolution bi ñeen ña wax dëgg yàlla gis nga tiital nañ leen rey nit jëxëran ñuy daal di tàmbalee ragal nag ah bi loolu amee nag jafe-jafe tàmbale naa am waaye euh, Ubaydullah ibnu Zayat muy gouverneur bu yees bi war a régler situation bi daal di def nag jëfu yeewute mooy bëgg naa xam muslim kan moo ko fat fan la nekk fekk ne sang bu tedd boobu yi nga xam ne moom moo ko fatoon bii nga xam ne muslim ñëw na ci kuufa dal ci almuxtaar nee nee nañ la woon a haan haan ibnu urwata moom kilifa la woon xam nga kilifa yi bu fe saa yu ñu masaane yebal gouverneur bu yees bu ñëwee rek kilifa yi dañoo war ñëw di ko nuyu si kilifa yëpp ñëw nuyu si mooy kilifa yooyu ñu ger waaye gis gisuñu haan ubaydullah ibnu sayaad daan waaw ana eh, am na si yéen kilifa yi am na ko ci manqué ana haan ibnu urwata kilifa la lan moo tax nuyu si wut ñu laat koy layal ko moom da daa xawoon a feebar ah mu daal ne déet moom kat gëstu naa bañ na ma sax ma nga këram deful dara léeg-léeg ca buntu këram lay toog ñun waaye ah, kilifa yi rek ndeysaan layal ko ngir rek xëy na ni mu nekk mbokk ne ko ah kay man seeti naa ko seeti naa ko waaye Ubaydullah ibnu Ziyad dafa doy waar nga moom mooy politicien yi dafa wut agent secret benn espion jox ko alal ju bari ne ko da ngay dugg ci dëkk bi nga wax ne yow gan nga guy doog a ñëw léegi da ngay laaj muslim ibnu aqil da nga bëgg a moom ndax yow ci ñi topp Xuseynu nga waa ji def noonu moom it dadi dugu dugg dëkk bi di laaj man kat maa ngi jógee ci dëkk sàngam dama bëgg ànd ak Seydina Xuseyn bëgg jaayante ak moom ñu ne ma am na ndaw lu fi nekk xam ah, nga loolu dañ koy daa tegtal ñu di ko ba tegtal ko kër Haani ibnu Urwata ba mu demee fa muslim dari jël alal ja jox ko eh, muslim jël alal ji boole ko ci alal ji nga xam ne eh, mooy alal yi eh, kiñ bëgg a jaayante mooy imam Xuseyn bu ñëwee seen bayti malak la ca aju mu daal di jaayante toog fa nag ay fan ba xam mbiri ni mu demee doog a ñëwaat na wax ko gouverneur bu yees bi ku saay-saay ko Ubaydullah ibnu Zayat Ubaydullah ibnu Zayat eh, bi nga xamee ne eh, notable ñi ngi layal Haani ibnu Urwata ginnaaw bañ noppee dañoo dem këram nag ne ko ah gi kat mi ngi loon góornoor bees mi ngi loonoon laaj te mer na kat ba yow nga dem nuyoo ji di wax ak moom ba mu dem ba mu ñëwee nag mu ne ko ana muslim ibnu aqil yow yaa ko fat mu ne ko déedéet fatuma ko mu daal di woo agent secret ba mu jóg agent secret ne ko du xam nga ma mu ne ko waaw mu doog a tiit nag doog ko xam ne ah kon kii nekk dañ koo fexeel mu ne ko ñëwoon naa sa kër sa kër nga ko fat ñëw naa falaa jaayante booba man euh, gouverneur bi moo ma yónni woon mu doog a xam nag lii am am na ba noppi mu ne ko lan moo tax nga di ko fat te moom xam nga ne dafa ñëw ngir daaneel état bi daa bag ñëw coup d'état nangam mu ne ko ah wax dëgg sëtu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ndax euh, mbokkam la ndax bu fekkee ne euh, baayam Abu Taalib moo ko jur Euh, kon amul werante ne moom doomi doomi bàyyi taxu yonante bi alayhi salaatu wasalaam moo ko jur kon ba tey ci mbokk yonante bi la mu ne ko deret yonante bi bu ñëwee di ma fëgg nag faawu ma fat ko waaye Ubaydullah ibnu Zayyaat mere na ko ci loolu ba dóor na ko aw yat daanaka ci bopp bi ba mu dagg mu wëlbati ko ne nañ ko sànni ci kaso bi ndax kii daa bokkoon ci workat yi loolu nag naqari woon na ay mbokkam ndax xam nga notable bu nekkee ci ab dëkk ay mbokkam dañ koy dañ koy xam bañ xamee loolu nag ñu ñëw def benn manifestation wax nañ ne sax muslim ibnu aqil def na benn manifestation ñëw ànd ak ay nit bëgg dal ci palais bi bëgg foqarti kook nga xam ne moo ko fatoon waaye ñoom dañoo mën a politique ñu daal di génn génne benn waaye mu daal di génn ci biir mbooloo mi daal di wax dalal leen ne leen déedéet buur bi da ko woo rek ngir ñu waxtaan ngir nangam miñ ci jàmm kenn rëyu ko mbooloo mi foofa dañoo waroon song rek bu ñu songoon danañ gañe gouverneur bi waaye xam naa loolu la yàlla dogaloon songuñu ñu daal di delluwaat ginnaaw jàpp ne kon mi ngi ci jàmm fekk lépp loolu pexe yi buur bi la buur bi mu gisee loolu mooy Ubaydullah ibn Zayat gis na moom mii kat buñ ko songoon dana néew doole daa gaaw gaaw yokk armeem nag daa gaaw xam ne kat ñii kat ndekete ñu am fit dañuy def sax ay manifestation bëgg ñëw dal sama kaw ay révolutionnaire lañu daal di tàmbali daal di yokk ay ngànnaayam daal di wut ab làquwaayam bu dëgër dëgër dëgër nag daal di daal di daal di fagaroo bu baax a baax a baax waaye nag teewul mu daal di jël kay sànni ko ca kaso bi léegi nag muslim ibnu aqil moo ci des wa kuufa moy iraqais yi ñu mëna war lañu mom dal bi xaaliss bi duggé ñu tambali di ray nit ñi publiquement ñu di gis ah muslim ibn aqil daal amul lu dul nit ñi di wàññiku moy lu mat lu upp fukki juni nit ak lu ko upp di doon ak mom muy wàññiku rek di wàññiku mujj gi amna nga eh, xamne tekkusan gi mujjé julli bam julli jee genn wal gépp gisule gisatu len ca timis ja ñu ko ba nga xamne ne daanaka sax fanweeri nit wala bok lu neew ci ay nit ñoo dess des gis nga tam mbolo mi ko da top kenn xamul num tollu waye bam julli jégué bam mu nak dafa gisul sax fa kenn nag ñoom ñëpp daw ñëpp ko ñepp wor ko xam nga lolu wax deug motax imam imaam bi mi genn ni lay ñew sahaba yépp ak mbokam yi wa kar yonent bi loolu lañ ko wax ne ko day wa Irak muy wa Kuufa ñoñu dañoo mëna wor war war nañ sa da naka fa lañ ray sa baye nangam nangam waaye imam Hussein ne mënta ñàkk a génn ndax yebal na ndaw ndaw li nee na ko terrain bi nooy na faaw nga ñëw tayit nak nag lu ci yàlla dogal moom mënta ndaw dogal ba yàlla saa borom subhanahu wa taala kon mujj na doy waar lo ci muslim ibnu aqil kon andut ak kenn tamam moom gan la ci dëkk bi nga xam ne keroog ñi mi wut a dellu kër gam jóge woon ñaan ñi ne kay waaye da ko xamatul sax dafa dafa réer ci guddi gi muy wër di wër ba daanaka guddi gi daanaka noonu la fanaane mu daal di fëgg ci génn kër goo xam am maanaam am màggat mu jigen moko mom mu fegg mo bi mu nako may ma ndox soxna sa dugg ci biir tank ndox may ko waye soxna si bimu toge toogee yag mu genn nak wara genn kërëm bimu genné këram muslim ibnu aqil xoolal rek xoolal rek ambassadeur buñ fi yebal ay nit top la nga dem ba mujj fi dem ba di wut kër goo dëkk mëno ko am ñepp war ko ndax kako faton mom moom denc nañ ko ci kasso bi su ko defé loola nek tital ñako ñu jema faral am ñu ñu rey publiquement nit ñepp daw soxna sa nako yow kat da nga di ma ñaan ndox ma may la ndox waa baye ba léegi yaa ngi fi toog ah loola tee dem man su ma seen doo toog sama buntu kër gi muslim ibnu aqil doo koy leeral nag ne ko man day maay ndaw li fi xuseynu yebaloon nit ñi jaayanteeg man nit ñi dañ maa wor ah, bàyyi ma xam naa ku mel ne man day boo ko fatoon danga nga ci amee tuyaaba soxna si tamit daal koy fat waaye eh, loola du yàgg ndax soxna si ba ko fatee ndeysaan jox ko ab reer mënta reer eh, teguñ ca lu yàgg nag soxna si wala boog Abdoulaye Ibnu Zayat mooy gouverneur gouverneur bu yees bi mooy préfet bu yees bi ñu fi fal wala gouverneur bu yees bi ñu fi fal dafa yeewu xam ne ne fi mu toll nii Muslim Ibnu Aqil kenn falatu ko am na fu mu làqatu am na kër gu mu nekk mu daal di dem ginnaaw ba mu jullee gee ba noppi daal di xutba ne nit ñi Muslim Ibnu Aqil mi ngi seen biir kër yi waaye képp koo xam ne indi na ko danañ ko jox ab neexal bu rëy ku ko jéem a fat sa kër nag bañ jàpp ko sa deret neen na bu ñe amul werante dañ lay ray kenn dula jéggal soxna ci ko fatoon mom fa wut boole ko waye soxna ci dafa am dom ju góor dom ju góor ji gis gis na mère bi di dugg ci néeg di génn mu ne ko yow néeg bi di amna ko fat lu xew mère bi dal ne ko sa yoon nekku ci bul ko lijeenti waye mu di ko sonal bam mu ko ko ne ko muslim ibn aqil mom ñuy seet mom la fat waye nak ma ngi lay ñaan li bu ko mos wax na nek secret suñu digënté xalé bi xalé bu goor bi jox ko kaddom waye xalé ba defut lola nam def dal moy dem ci abdourahman ibnu mouhamad ibnu al ashas daal ko koy wax daal ko koy wax ne ko day muslim ibnu aqil ndeke de suñ kër la nekk abdourahman ibnu as abdourahman ibnu mouhamad mouhamad ibnu ashas moomu daa bokkoon ci ñi ànd ak ubaydullahi ibnu ziyad nekkoon kilifa gu ñu fonk bu doon ci jamono yi léegi nga ne mooy procureur ba daanaka rek waaw kon abdourahman daal di dee baayam mouhamad ibnu ashas ne ko xale bi nee na ma muslim ibnu aqil ma nga seen kër fekk mi ngi toog ci ubaydullahi ibnu ziyad baydullah ne ko yow sa doom ji lim la dey lum doon gis na mu lay dey mu wax ko ko mu wax ko bi ne ko mom day neena muslim ibnu aqil khalib khalib da ko magasin ne ko ma nga seen kër eh, Ubaydullah ibnu Sayyad jeli yaddu mi yoronte ko ci ab jeham ne ko nang mako andil naga nga jóg lu mën xew dem dem japp ko andil mako naga na nga ànd colonel bobu man mo jiite khalib tuddu amru amru andak lu jege nit wala juróom-ñett fukki nit ci ay gendarme ay policier ñu daal waxu dem ci keur khalib muslim dal yëgut jékku jek lulu rek ndaysan yëg ne gaay ñi encerclé nañ kër gi mën ta rëcc waaye xam nga waa kër yonante bi alayhi salatu wasalaam dañuy mën a xeex lool nga sayidna ali ni mu meloon jaxfar nga nim ni mu meloon ndeysaan euh, sayidna hamza ñoom ñëpp ba ci xuseynu mi ba ci hasan ñoom ñëpp yàlla da leen di dañuy am fit te dañuy mën a xeex dañuy jàmbaare muslim ne nag ndekam dee dee la rek incha allah dañuy xeex daal di nag tàmbale di xeex police heure bu ñu duggee ci kër gi mu xeex ñoom ba dàq leen ñu génn génn na leen ñeneen lu ëpp ñetti yoon mujj gi nag ñu xam ne faaw mënuñoo ñàkk donte gaañ nañ ko ba tuñ mi di nàcc euh, waaye rek euh, mujj gi Abdourahman euh, moomu Abdourahman ibnu Muhammad moomu daal ne fekk mi nga ànd ak police yi moog bàyyi Muhammad ibnu Ashas ak soldaar yooyu daal di wax ak moom nag ne ko tee nga kii rek su ko defee ñu mën laa jàpp mën laa yóbbu buñ àggee jéem a xool nu ñuy négocier nu ñuy waxtaan nu ñuy defee nangam jox ko daal buumu kóllëre muslim ibnu aqil doga nango jox ko loxo doga nango doga nango genn waye muslim bi mu genné ñu daal nango ay jess nango lepp daal nay xam fasasa ne mom mi dañ koy dañ koy ray amul wérande kër na révolution bi mom moko wër moy cible bi ku ne xam na ne ku mel nonu kenn duko bayyi bu ne ci walu politique ñi nga xam ay dictateur lañu ndaysan bi mu genné nak mu daal di wax ibnu asas momu ne ko xamna mom dañ may ray daal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun daal di jooy foofa ñu ne ko ah, yow kat baa ndaga tay rasalit yow mi mission bu mel ni ku ko yoree xam nga ne bu ñu la dañ lay ray waaw ah, yow kenn du la jël di la mu ne déedéet jooyu ma sax ngir man dañ may ray lolu amul solo waye sayyidna xuseen mama ma bindoon ne ko ñewal dekk bi noyna ndeke ndekete yow ñi ay warkat lañ lolu moma xawa jaaxal daal di wax nak euh, ibnu asas moom ne ko suma sayon manglay ngi lay ñaan nga bindal ma letter xuseyn da xamna genn na mi ngi ñew te sama kaddu la sukkandiku dimbale ma rek nga bind ko leeral ko situation bi ne ko ñi ay warkat lañ na dellu bu mu ñëwati leetar bobu nak ibnu asad bind nako waye neñu imam hussein bi mi jot leetar bi bo fekk na muy genn tayit leetar bi amul dara lu war tax mu xam muslim moko bind ndax ko muslim la yoni won, bu jekke jek jotat leetar day defee rek ab yakkat la mo tax dal gëmu ko euh, muslim ibnu aqil japp nañ ko andi ko ci wetu pale bi bam mu jaxlé na lool ndax gis na ñu bari ci doomi sahaba yu magi ñi ngi tok ci buntu bi di xaar gouverneur recevoir leen loolu xaw naa nekk déception ci ñoom ndax kat dafa dafa xam ne comme saxaaba yi ñoo daa ànd ak yonant bi kon seeni doom waruñoo nangu lu mel nii ab buur bu saay saay di leen jiite di leen defloo di leen di leen dindiloo bokk na ci ñooñu euh, Omar ibnu ibnu Saad ibnu Abi saadu Saad ibnu Abi Waqaas xam nañ ne nim jàmbaaree nga xam ne li def ci lislaam kenn xamut nu mu toll doomu ju di Omar bokk na ca bokk na bokk na ci ñam fekk foofa muslim biñ ko indee ci wetu pale bi mu daal di sonn lool daal di mar. benn saay-saay bu tudd muslim ibnu umar ibnu umar albahili tàmbali di ko xas nag naan ko da ngaa mar de waaye ndox mu sedd ngi nii waaye doo ci naan yow dañ lay rey nga faatu naan ca ndox mu sawar ma waaye muslim ne ko yow yow la kan mu ne ko mën na muslim ibnu umar ibnu umar ibnu amr albahili mu ne ko yow day kàccoor bu bon nga sawara soosu ngay wax de xam nga ne wax dëgg yaa ci gën a yaa ci gën a yey waaye ku tudd omar ibnu uqbatam nu abi mu'ayt moom it bokk ci bokkoon ci saxaaba yi Euh, doomam jooju moom it daal di dem jëli ndox rek may ko mu naan waaye bi muy naan boo fekk na euh, dóor nañ ko jaasi ci gimiñ geeg yu mel noonu daanaka dereti kese la naan euh, bi mu seexee pot bi sax ay bëjam dañoo wadd ngir yëf ni mettee woon bi ñu ko indee nag ci gouverneur bi mooy Ubaydullahi ibnu Zayat Ubaydullahi daa tàmbali naa ko yow da nga fay ñëw bëgg a yàqal nit mën a ko déedéet yow sa baay dafay nekkoon nekk ab kàccoor nekk am firawna daanaka rek nekk ab buur boo xam ne day yàq Euh, nit ñi dem ba sonn woo Xusayna ñëw di jaayanteek ñoom waaye rek Ubaydullah ibnu Ziyad ne ko déedéet waxoo dëgg yow ko mel ne yow yow doo référence tàmmal di ko xas di xas Seydina Aliyun di xas Xusaynu wax ju ñaaw ju ne xam nga Banu Umayya moom yàgg nañ ci xas Seydina Aliyu ak njabootam loolu moom ak nooneel la goo xam ne rek doy na waar rek ñuy ñuy jokkalante ay kàddu di jokkalante ay kàddu mu ne ko nag dama lay rey mu ne ko loolu man amu ci benn jafe-jafe boo ma reyee loolu amul benn jafe-jafe waaye muslim ibnu aqil sàkkwaat na ci eh, omar ibnu saad ibnu abi Wakas, doomi sahaba ne ko dama laa soxla daa am lu ma bëgg wax waaye omar nangut a juk ngir eh, ragal gi ñu ragaloon buur yi rek waaye buur bi ne ko jugal mu daal di jóg mu ne ko damay sàkku ci yow ñaar man dañ may rey xam naa ko waaye buñ ma reyee na nga sàkku ci gouverneur bi mu jox la sama yaram nga man maa denc denc bu jaar yoon am naa fi borit nag nanga ma ko fayal ba ca rek mooy bindal ma ab leetaru Xuseyn gis nga sàkkuwaat na ko yéen ñëw moom xalaatul boppam waaye rek lay xalaat bindal ma ab leetaru Xuseyn leetar boobu ba ci Xuseyn jotit ba tey daa fekk mu xas ba génn ba sori Xuseyn rek daa daa di wéy ci ndigalul yàlla daane daal moom du dëppaat euh, lu ci yàlla lu yàlla dogal rek mu xam ne loola yàlla dogal na ko lool yi euh, la sàkku ci Omar ibnu Saad ibnu Abi Waqas radiyallahu anhu moom saxaaba bu tedd boobu maanaam baayam mooy ba Euh, saad ibnu abi waqas bok ci fukki nit ñi ñu bégal ci ñi bégal ci aljana waye nonu gouverneur bi non la def obaydullah ibn zayyar xam nga du ko jéggal mukk dañ ko yéggal ba ca kaw montagne bu kawé ngir bëgg a joxe exemple boole ko ku bon ku tuddu bukayr ibnu imran ne ko na dagg bop bi mu dagg bop bi bop bi wad mu daal di puus jëm ji jëm ji wad allahu akbar non lañ ko ray ngir bëgg bëgg wax ne ki rek fi nekkulon xuseyn ni lañ ko def li lepp kat xuseyn yëgu ah Xuseenu yëgagut ne li lepp xew na bala mako yek danaka dana dem ba aksi nga xam ne mënatut delu ginaam naka nonu han han ibn urhur wat mi ko faton momit it dañ ko exécuter moom it dañ ko yobba ca ca daral ga rek moom ñu daal dagg ray ko ngir bëgg joxe exemple xamne kep ku fi ñewati di wax leneen lu bokut ak buur bi koka dal ku ko fat ak ku ko jege nu mel nii lañ lay def loolu nek message bu doy war li nak ray gi muslim ak hadi momu mi ngi nekkon juróom ñenti fan ci wëru tebeski ta xam ngeen ne sayyidna mom ñetti fan la génn juróom-ñetti fan ci weeru tabaski la génne màkka war a jëm si nag yi nga xam ne fii la muslim ibnu aqil nekkoon mu di mu di kuufa lii nee ñu mu ngi tollook ba tey ci atum juróom benn fukk incha allah sunu juróomeelu jotaay ñi ñëw nag ci sayidna al imam xuseyn bi muy génn ak laybir gi sahaba yi don laybir ak ay mbokam ngir mu baña a génn ak bañ a gennal ak njabotam ak mom bim genné lan la fekk si ak bim yegge xibar muslim bi nga xamne moy gouverneuram ba wala moy ambassadeur ba niñ ko rayé ak la ci aju lepp nak suñu juromelu jotay lay doon incha allah dellu siwaat nanu sunu juróomeelu jotaay jotay bi nga xamne ne dañuy jema waxtane xew-xew bu metti boobi ñukay tuddé Karbala mu amon ca Iraq bañ rey fa sëtu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu de al imam Xusayn euh, jullit yëpp di ko fàttaliku di ko mettit lu ba léegi jàngoon nanu ci bind yi weesu al imam Xusayn radiallahu anhu alayhi salaam laataa muy dem di wuy ji yónni woon nanu rakkam jooji di muslim ibnu aqil muslim nam mujje loolu jàng nañ ko sunu bindu ñeenteel bi weesu léegi nag day mel ne kon dañuy dugg ci al imam Xuseyn bi mu waree génn war a war a jëm Irak muy Kuufa génn bi nu mu demee ak lu ci aju al imam Xuseyn alayhi dogu na ci dem wuy ji ñee nga xam ne ñoo koy woow am na yaakaar ne rakkam jooju mu yónni muy muslim ibnu aqil seen ñaari baay bokk benn baay lam ko bind ne ko fii dey wax dëgg yàlla nit ñi jaayante nañu loola la yëg waaye yëgul ne muslim ibnu aqil rey nañu ko moo tax juróom-ñetti fan ci weeru tabaski la waaj dem ca kaaba ga daal di umra wër kaaba gi tàggu def ay ñaan fas yéenee génn waye nak genn bi yombuton ndax sahaba yi nga xamne ño da daa ànd ak maamam mu yaronte bi alayhi salaatu wasalaam ñoom ñépp laxasu nañ ko ñaan ko rek nako ko la ko ñaan ngir yalla bul genn ndax bobo sahaba yi xam nañ waa kuufa xam nañ ay nit ñu mëna wor ño fa nek ño ray bayam ba may julli suba ñu faat ko ya fofu lañu genné moy ñi andon ak mom bam yag ñu ko contre ko xam nañu tamit foofa la ñu tookee foofu lañu ñu posanee euh, Xasan ñoom ñoo ko rey ay nit lañ ñoo xam ne dëgguwuñu ci ay wax moo tax baayam bii di Abdullah ibnu Abbas moo ko njëkkatee ne ko daal maa ngi lay ñaan bul dem boo demee Kuufa danañ la wor danañ la wor danga ci am mbetteel bu baax a baax a baax a baax ne ko baax na dinaa ci xalaat ba abdullah ibnu abbas xëyaatee ñëw gis ne xuseynu mii dafa dogu nee na ko daal euh, ca dëgg-dëgg bu fekkoon ne am naa kàttanul man laa téye man laa laxasu ba doo dem kon dinaa ko def ndax fi nga jëm xam naa ko te ay nit ñu bon lañu nit ñoo xam ne amuñ jikko ju rafet ginnaaw bi mu ne ko yow sama doomi mbokk mii mooy doomi Seydina Ali mbokkam la mu ne ko kon maa ngi lay ñaan boo mënta ñàkk a dem waaye waaye maa ngi lay ñaan kon bàyyi fi sa njaboot ki waa bu ci yóbbaale kenn waaye Xuseenu boo fekk na dogu na waaye boo fekk na tamit xam nga sabab ba ma la waxoon mooy dogalu yàlla ba jiitu woon loola mëntoon a ñàkk xëy na yàlla tuddoon na ñoom ñëpp seen bakkan dafa war a des foofee ca suufu Karbala ginnaaw bi Abdullah ibnu Omar di doomi Seydina Omar ibnul Xataab xam-xam bu mag ñu ne moom sax bi mu koy bi fekk na Xuseynu génn na lu sori sax waaye dafa góorgóorlu dem ba dabi ko ñaan ko ba sonn ne ko waaye maa ngi lay ñaan waa ko yi buñ la war ay warkat lañu yàgg nañoo war sa baay yàgg nañoo def nangam leeral ko lépp Xuseynu am na koo xam ne moom ñoo bokk benn baay muy Muhammad ibnul Xanafi nga ne dañoo bokkul ndey ay Seydina Aliyu mooy baayam moom it yedd na ko toogloo na ko Ummu Salama mi nga xam ne mooy soxna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne ba yonent bi doon jooy naan ko jibril moo ma xibaar ne sama doom jii di Xuseyn dañ koy rey ci suuf su tudd Karbala te Xuseyn ma nga ma nga war a génn jëm foofa nga dogal yàlla dafa doy waar moom it ndeysaan saraxu na ko euh, jooy na ko wax ba sonn ne ko ci dëgg-dëgg bu fekkoon ne sa yaay Fatima mi ngi dund dey xam nga ne du la bàyyi ngay génn ci lu mel nii dama amul kàttan waaye kon kon ma téye la kon lu metti la nga gis sa doom euh, di génn di jëm foo xam ne xam nga dafay faatu te mënoo ca dara abu saidin al xudri jaabir ibnu abdullah said ibnu musayab moom daal abdullah ibnu jaxfar euh, moom daal kenn ku nekk rek euh, ñëw na ñaan ko abdullah ibnu jaxfar xuseyn da koo tont ne ko yow abdullah ibnu jaxfar man dafa am lu ma yonant bi won gént naa ba am lu ma yonant bi won loola nag mënuguma kaa wax lu dul ne dama caa àgg mooy dafa mel ne xuseyn daal day wuy ji ak am day nangu ji dogalu yàlla suñ borom subhanahu wa taala donte am na ay sabab sababi zahir yoo xam ne moo feeñ ci kaw muy situation bu doy war kon magi sahaba yi ay mbokam ñi ko bëgg ñom ñepp genn na ñaan ko euh, saraxu ko waye teewul Xuseyn genn na ànd nak njabotam ànd nak njabootu yaronte bi alayhi salatu wassalam ndax nak mo nekkon seen kilifa lu mu leen digal dañ koy def ñomit nangu nanguwuñoo tok di bayyi Xuseyn muy dem Abdullah ibnu Abbas dem na ba ko sax tee dem Yaman Yaman sa baay bari ne fa ay euh mo gën bo fa demee da nga mëna nekk ci jamm waye wa baghdad ñi wa Irak ay warkat lañu dëgguwuñu li lay wax lépp rek tabarkàlla waaye rek mu daal di mu dogu ñoom ñëpp rek ñu ne ko ah kon de dénk nañ la yàlla sunu boroom subhanahu wa taala xuseynu nii la génne bi mu génnee nee ñu ba may àgg ca barab bu ñu tudde xaadir am na ñu ne siraaf ca jot nag information ñu jege foofu di kuufa ñu xamal ko nag ne ko yow kat sa mbokk ma nga yónni woon muy muslim ibnu aqil rey nañ ko foofu la yëgee xibaar bi ah muda mu di di diso ni len waw kon kat wa Irak ndekete dañoo war liñ doon wax lepp ndekete deug la dañoo war leg rek luy seen xalaat ah, foofaat nee ñu ñenn ci ñi ko nek nekk ay fansam bëgg ko lool yeewi ni len neen la mbir mi de fim fim jëm moom daanaka rek ak de lay gëna a kon mboolem ku gennon te xamoo situation bi ni lay deme eh, dogal na la ngànt duma la ci yedd ma nga ñaan nga depp neñu amna ñu bari ño xamne depp nañ waye nak nag njabootu yonante bi mom dañoo lank ne ko faw mom dañuy and ak yow fo jëm rek buñ la ray ñun dañuy ray bañ jeex ñu dok lay ñu dok lay faat xam nga njabootu yonante bi ñom dañoo mas jambar jàmbaar waaw bul defee ne yonante bi salaas ak njabootam dañoo doon ño xamne rek dañuy tok ñu leen di siyaré nek ay sëriñ yoon sëriñ non rek dedet ñom jambar ak aw fit eh, tabarakallah mara nan du leen tax nan potit duñ ragal mukk duñ yox yoxi ne ko dañuy dem rek ne bi nga xamé ne muslim ndekam moom dañ koo yabaloon mook muslim seen ñaari baay bokk benn baay ñu faat ko mu ne ah ndekam fi mu toll moom de maanaam dund sax dund sax ngor laajatu ko nag ngor laajatu ko fi mu toll moom wàññi ko moom xel xel xel xalaatu ko nañ dem rek nañ dem rek. bañ àggee xaadisa barab bu tudd xaadisa fala dajeeg nag arme bi njëkk bàyyi koo ci Ubaydullah mooy Ibnu Zayat mooy ki nga xam ne moom la. Euh, Yasid yebaloon foofu mu gouverneur bu soxor bu yees boobu yi euh, mu daal di yebal nag soldaar bu tudd Xurrum nu Yasid wala xar mu daal di yor junni nee ñu ci ay soldaar kooku moo njëkk a dajeeg Xusayna jóge ci Ubaydullah ibnu Zayat bam dajeeg moom Xurrum nu Yasid ku baax la woon moom dafa xamutoon ne dañ koo yebal dafa xamutoon mbir mi fi muy mujj rek waaye bu ko teeloon a xam bu ko yàlla dogaloon moom mii mënoon naa régler situation ndax lu ne jéem la ko ndax moom ku bëgg Xuseyn la nee na ko Xuseyn euh, maa ngi lay ñaan nga xool fi kay teg sa tànk waxtaan naa moom ne ko yoon wi nga jaar baaxut baa xam nga ne boo continuer ci nii na la wóor ne dañ lay mujj rey waaye Xuseyn daa am fit euh, sëtu yonent bi alayhi salaatu salaam doomi Seydina Ali ibnu Abi Talibin Xuseyn euh, daanaka ay rey koo jàpp mu ne ko yow xorru Euh, tëkkuwoo ma xuppoo ma lu dul dee ne ko dee moom man mën kenn du ma xupp ci dee daa di wax baytam yu siiw ya sa amdi wa ma bil mawti aarud ala al fata ida ma nawa xaqan wa jahada muslima ne ko dee rek dee moom lépp lu dox sama digganteeg moom ñu ne ñu ma ci xupp dee damay wëy waaw ne ko xanaa xama dee moom mënta ñàkk as dëgg-dëgg jàmbar dëgg-dëgg dee du nekk gàccaam li am solo mooy la ko tax di dee la tax di dee na nekk lu muy jihaat na ko na ko teg ci ak dëgg rek ñu ko rayee ci loo xam ne moo am dëgg mu xam ne kon def na la man ba dee ñëw waaye dee kese nag man du ma dee suma ci xëpp ndeysaan mu nekk ak noonu moom xurub nu Yazid teewut nag xurru nekk koo xam ne bëgg na Xuseynu lool waaye nag ma nga bokk ci beneen arme mooy armoom noon yi gis nga bu julli jotee Xuseynu dafa wax daan ne nañ nodd ñaari arme yi ñu ngi taxaw ba ñu noddee Xuseyn ne ko ah, kon tee ngaa jiite sa soldaar yi xoroon ne ko déedéet donte damaa ñëw ñeebal ma ma war a jàkkaarloo ko yow nag xam naa ngëneel li yàlla def ci yow xam naa ngëneel li nga xam ne yàlla def na ko ci yow xam naa ne mos yaay sëtu yonent bi bu dee ci xam-xam bu dee ci tedd nga doo saa morom kon nag jiiteel ñaari arme yëpp nga xam ne lu yéeme la ñoom ñi ngi xeex xeexse koo xam ne moom nangu nañ ne ngëneel li yàlla def ci moom ba nënguñ ko nanguñ nanguñ koo sax jiite julli mooy jiite julli mooy def lépp ah, ginnaaw bi am ñu daal di yabalaat beneen renfort renfort bii nag moom moo gën a diis ndax nee ñu bi mu ñëwee ba ci suufu Karbala dafa tibb suuf si mu xonk cur mu ne waaw suuf si moom mooy san suuf ñu ne ko fii mooy Karbala mu ne fi ah, fii kon karbun la wa balaun un waaw mooy suuf sañ ko so sa Jibril tibboon andil yonante bi ne ko fii lañ koy faata xoseen ba mu xoolee suuf si ne suuf sii kay suufu njàqare la sofo balala la waaye fi ngay tuddul karbala way karbun wa balaun la tudd neñu lol la wax ñu dal yabalat keneen ibnu saad ibnu abi Waqas, ane bayem lo ne def nako ci l'islam da nak yaronte bi alayhi salatu salaam tay mo wara a hussein di xex ak mom muy lu doy war neñu ñu ñeenti junni soldar mom lañ ko jox allahu akbar mbokki hussein li yoron ci ay soldar ñaar fuk ak ñaar manam 72 72 waye gis nga ñi soldat yi ñi andi ñaata lañ ay jooni ta buñ demee ba ci kanam ci ngay xam njàmbaaru Seydina Xuseyn ak fami yaronte bi alayhi salatu wasalaam <clears throat> ñent jooni Xuseyn ne Amr ibn Saad ne ko waaw yeen seen soldat yu bari yi fu ko jëme mu ne ko ah, yow kat dégg na daga ñew da ngay def ci nang mu ne ah, déedéet leeral leen situation bi wa Kuufa ñoo ma bind ne dañu bëgg ñew jaayante ak man ngir eh, vin la si ak nangam nangam nangam lolou mu andi daal di lettre yépp won koko niko mi ngi ni mi ngi ni ñomako ñomako bint Tubashti. Euh, Omar mi Omar ibnu Saad momit deug la euh Omar ibnu Saad mom sax li tax ko a jóg buñ delo ci ginaaw tuti manam mom dañ ko yabalon mu and ak ñent junni soldaar yoy jëm fele ca Ndaylam euh dekk buñ wax ri fofu la waron dem war fa am combat yum fa amal. am dëkk bu ñu war a ubbi waaye rek Ubaydullah ibnu Ziyad moo ko yebal fii ne ko njëkkal a jaar fee ci Xuseyna ñu lijjante ay dossier ba noppi nga doog a nga doog a jàll waaye Omar moom it bëgguta bu sañoon du xeex ak euh, bu sañoon du xeexak ak du xeex ak euh, al imaam Xuseyn bu sañoon du du xeex moom moom it bi mu fi nekk du tee bu julli jotee ak lu mën a xew day ñëw nekk ci ginnaaw Xuseyn di Xuseyn di ko jiite jiite ab armeem ñu julli ndax kat armée bi kat ñoom ba léegi dañoo wax ne ay jullit lañu doon dañoo nar a rey Xuseyn waaye dañoo wax ne ay dañoo wax ne ay ay jullit lañu bi nga xamee ne nag yi yi demee ne noonu léegi amru amru ibnu Saad laaj Xuseyn ne ko léegi loo bëgg leeral ko li mu ko leerloon léegi li ko taxoon a jóg ne ko jugutoon moom ngir di jàkkaarloo kenn dañ ko woo am ñu ko doyloo bëgg a jaayanteeg moom loolu moo ko taxoon a jóg te wane na preuve mu ne ko nag léegi noo bëgg Hussein ne ko waaw comme ndegam situation demene ni na da ngay meuna bayyi ma andak ak sama armo ñu dem ci frontière yi yéefar yu ñu fekk fofa nga ñu ay yéefar lañu su ko defé ñu meuna xex ak ñom ba meuna ubbi fofa dekk bi islam buñ ma fa rayé ma xam ne dañ maa rey ci jihad wala boog nga bayyi ma mak ñuk ma andak ak sama armo ñu continuer dem ci dem ci Yezid Yezid bi nga xamne mom mom lañ fal Xuseyn mom naka jekk nanguut jaayante ak mom mu ne ko ma dem ci mom buñ démé ñu xol nuñ def mak mom wala boog eh, nga nangu ñoo bayyi ñu mëna a dellu fañ jógoon muy di makatal mu wala madinatal munawwar léegi nak omar ibnu eh, eh, umar ibn saad mom bu sañon du xex ak xuseyn moo tax proposition bu xuseyn def ko mom da cee content lol japp na ne ah, wax deug yalla comme mom yebaluñ ko sax ngir mu ray xuseyn wala mu xex ak mom mom daal léegi kon na bind lettre mu daal di bind lettre ci ubaydullah ibnu zayyad moy gorno bi nek kufa ubaydullah ibn zayyad bim mu lettre bi ah dafa kontaan lool daan na déet Ousseynou moom ñun xeex ak moom taxu taxuñu woon yii mu def nii ne benn mu dem jihaati wala mu dem ca Yazid wala mu dellu Màkka ga mu bàyyi ko woon loola kay lu rafet la waaye nag eh, xam nga rek nit ku texee di dafa am benn waay bu texee di bu ñu tuddee nga ne aw turam rek daa ñàng te nee ñu noonu la jëmm ji ñàngee woon eh, jëmmu loon joo na ne nii xutoon a xool dafa raglu woon mu ñu koy wax Simru ibnu Zil Jawsan ku doy waar la woon ku doy waar lool kooku moo waaw moo ne déedéet duñ def loolu moom kay moom ndekam fi mu toll nii ndar ko kepp ba amatul pexe duñ ko bàyyi nag muy rëcc di dem feneen lu dul ne dafa nangoo jébbalu dafa nangoo dafa nangoo jébbalu joxe xam nañu Xuseynu moom xel xalaatul muy joxe boppam waaw xel xalaatu ko mu daal di léegi nag buur bi maanaam góor gouverneur bi moom it ah xolam daal di tànkaat mu ne ko waa wax nga dëgg kon nañ def noonu ba noppi boole ci daal koy yebal moom mii nag ba noppi boole ci moom ndax dafa dafa wax. ibnu zayat lu mu ko wax dane ko dane ko yow amru ibnu saad mee nga yebal maanaam dafa nekk ko sopp xuseyn dafa bëggut a xeex ak moom dong moo tax fi mu toll mu di ko wutal buntu sorti ne ko tey dégg naa sax bu guddi jotee daanaka ñaari arme yi dañuy jege nii nga xam ñoom ñaar dañuy dañuy waxtaan kon daal la nga ko yónni difu ko daa a nekk ko tar ci xuseynu te difu ko ah ibnu zayat moom bi daal ko yebal moom mii ne ko wax nga dëgg boo demee na nga forcé Xuseynu ne ko daal benn porte de sortie lañ ko mën a may mooy mu nangoo jébbalu nangoo joxe boppam nangoo jaayante ak Yasiid bu defut loolu nag xeex dong mooy mën a mooy mën a am ne nag boo demee Amru bnu Saad mais lànk ma yebal ko mu nekk di nooyal ne ko euh, maa ngi koy xupp waaw maa ngi koy avertir ne ko na songu Xuseynu jéem a xeex ak moom bu nangut a jébbalu ne ko nag yow nag yow euh, Simru bnu Zil Jawzan ne ko yow bu fekkee nag amur da nga da nga gis muy yox yoxi na nga ko rey yow nga jiite arme bi gis nga saay-saay gis nga saay-saay baaxut kon léegi mbir mi jël na beneen tournure nag ginnaaw boo xam ne solution nanoon naa am waaye fekk rek lépp dogal yàlla bi nga xamee ne simru simru ibnul zil jawsan borom turu ñaaw woowu ñëw na jox leetar bi amru amru dana inna lillahi wa inna ilayhi raaju ne ko day bi ma ko bindee leetar bi day amoon naa yaakaar waaye li ma wóor mooy yow mu bon mii yaa jaxasawaat am xeelam ba tax mu ba tax mu dellu ginnaaw ah léegi nag amru moom amul pexe amru nag doomi saxaaba bu mag la saxaaba bu baax moo tax ñi ko jege ñëpp nee nañ ko woon Xuseyn mii bu ci sa loxo taq ku toll ne suuti yonante bi ñu di ko faagaagal kum laaj xalaat rek koo ko wax ko loolu waaye rek xam nga mbiri adduna moom adduna bu xasee ba nekk ci tabarkala day xaw a day xaw a doy waar nag mbir mi daal nay daal nay soppi ko bu baax a baax a baax a baax bis bi nga xamee ne nag euh, Simru moomu ñëw na ñu daal di wër Xuseyn ndox ma nga xam ne da ca naan ñu daal koy teere ndox mi nga xam ne moom ak waa këram dañoo mar mar mu metti lool mar mar wu doy waar foofu am na nettali bu bu méttee métti bu fi xew nettali bu metti lool bi nga xamee ne eh, maanaam Xuseen dafa amoon doom ju ndaw ju tudd Abdullah xam nga ab xale moom mënta muñ aw mar xale bu ndaw bi mu dee ba mar ñu tere leen ndox mi ne leen kenn du dem ci ndox mi ku dem ci ndox mi rek ñu ray la Xuseen daal di génn jël xale bi fab ko yëkkati ko daana waaw yii yéen xanaa seen yaram du daw bu dee nun mag ñi sax xëy na mën nañu muñ aw mar waaye bu dee xale bu ndaw bii xanaa du ngeen ko dimbale may ko ndox mu mën a dem ca ndox mais naan ngeen ndox diggante mag moom waaye benn waaye bu bon a bon a bon moo jekk-jekk rek taw yi fitam rek jam ko xale bi allahu akbar waaw jam ko xale bi xale bi noonu la seddee guy ci loxo ci loxol baayam muy euh, al imam Xuseyn xam nga xale bu ndaw nango ko ko nango def loola jëmmi Xuseyn ci bopam amna na benn bo xamne dem na ci ndox mi di naan ñu daal koy ñu daal koy jam ak fet momit ba euh, gimiñ gi di nacc gis nga lol nim nim doya war legi bi nga xamé ne demee na nonu biñ agge xam nga ne Xuseynu mi ngi gennon fele juróom-ñetti fan ci wéru tabaski bim doxé ba fi nag mi ngi tombé ci wéru wéru lan wéru muharram bim mu ba nga mi ngi karbala wéru muharram mooy weeru tamxarit bisub juróom-ñeenteel ba foofa diisoo dafa am ndax léegi xoseynu dafa jekk-jekk rek arma bi ñëw di ko gën a jege si rakkam jooju nga xam ne doomi Seydina Ali la muy muy Zeynab mu jigéen moom yi fekk xoseynu mi ngi sonn euh, mar nekk ci ay jafe-jafe lool yu xaw a doy waar lool waaye Zeynab bu ne ko ah, daa mel ne kat ñii dañuy waaj a song mu daal di yónnee ngir laaj leen mu yéene ngir laaj lu xew ñu ne ka ah, ndigal kat dafa ñëw nee ñu moom fi mu toll nii ah kenn mënatulaa xaar kenn mënatulaa xaar léegi daal benn faaw da nga jaayante moom faaw da nga jaayante ci saasa wala boo ko defut ñuy xeex ak yow aussi ne leen baax na kon léegi may leen euh, may leen ma guddi gi guddi googee nga xam ne nag mooy juróom-ñeenteelu ci weeru tamxarit Xuseyn dafa fanaanee naafila fanaanee julli euh, ba mu xëyee ndeysaan la wax ne moom dafa gént yonent bi alayhi salatu wasalaam am na ñu ne daa wooroon xam nga euh, taasuwa ka aswara dafa baax a woor ñu ne daa gént yonent bi yonent bi ne ko yow kat euh, ci ñun ngay ndogoo si maanaam daal da nga ñëw fi nun da nga da nga ñëw fi ñun gént gu mel noonu ummu salama nee ñu gént na ko fekk boobu ma nga nekk ca màkka teewul gént na gént gu mel noona yonent bi alayhi salatu wasalaam yor lu mel ab kaas deret nekk ci mu ne ko moom ummu salama mu ne ko waa deret ji lu mu doon mu ne ko deretu xuseynu am na ñu ne ginnaaw bi ñu xuseynu la gént la gént la gént gént googa allahu akbar kon nag bisu alxamis la woon bisu bisub juróom-ñeenteelu fan bi mooy taasuwaa ginnaaw bi nga xamee ne julli nañ takkusaan ba noppi nekk juróom-ñeenti fan ci weeru tam xarit nga xam ne arme bi nar koo songu tam wax leen ne leen kon da ngeen may muñal guddi gi guddi gi nag ndeysaan mu daal di dellu ci ay mbokkam waxtaan ak ñoom leeral leen dogalu yàlla ne leen ku ci xam tamit lii da nga koo ah maa ngi lay baalu xàq de ndax situation bi moom fii la toll ndaysa fanano naafila ci guddi gi fanaanoo ñaan fanano def ay kiyam ay tagutom tàggatoom daanaka rek bañ xëyee suba moy bisu fukkeel bi moy bis biñ koy faat dafa xey suba daade di laabu maanaam mel ko wajal bopam manam ne sang bopam ba set sol yere yo xamne ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam la ko jele won amna sax ñu ne jël ci jëm yoroon ci yonent bi la ko la ko jele da tambale khutba nit ñi nak khutba ñi andal ba dem khutba yéefar yeen ñi de lu ban ngeen nara def wa man lan la leen def xana do man may seen sëtu yonent xana do yonent bi wax waxon na ci man nangam ak nangam yonent bi neena won nangam ak nangam tay ji doom yonent man rek ma fi dess ma fi ma ko fi gëna jégué jege maak sama njabot gi waaw ndax dama ray kenn ci yeen ba tax lislaam daganal sama dér ngeen war ma ray wala dama jam kenn wala nangam leeral wax wax wax wax ba son waye gañu nuñ def dañu wax ne husaynu mi da mëna wax ndax dafa doon bayam bayam day ku mëna khutba mëna wax wax ju rafet mëna jambar buñ ko bayé mu wax boo wëtti ko suñu armee bi mën naa am sax ñu ci seen xol tooy ndax xam nga sëtu yonent bi nga jàkkaaroo moom kooku moom ku mën a nekk sa chef boo wëttandiku dana kii moo ñu ne buy wax rek nañ nekk nañ soow <laughs> nañ soow nañ yuuxaloo ngir bañ nit ñi dégg ko waaye loolu téewul mu wax téewul wax ji àgg na ci xolu ñenn ñi ñu bari dañoo bàbbi ko ci bee daal di ñëw bokk na ci ñooñu ki nga xam ne moo jiite woon armée bi mu njëkk a dajal mooy Xurrum nu Yasid dafa ànd ak nee ñu lu mat fanweer fanweeri nit ñëw heure buñ dee ba ci kanam rek am ñaar wala ñett ñu ñëw nga xam ne armée Xuseynu bi ginnaaw bi mu nekkee 72 daanaka dem na ba mat téeméer wala mu jege ko waaye nag ana téeméer ak ak ak ak ñeenti ju nekk nangam loolu ana ana fu ñuy tolloo ndeysaan. Xurun nul Yasiid bi mu ñëwee nag ne ko wax dëgg yàlla man xawmoon ne nii lay demee bi ñu may yebal. Eh, ma ñëw su ma xamoon ne nii la demee ba léegi wut naa solution bu yàgg man su ma sañoon du ma xeex ak yow jéggalu ko daal di wax ne dee moom dee rek lay doon eh, man daal tànn naa ànd ak Xuseynu même buñ ma rey ma xam ne rek euh, ma xam ne rey nañ ma mu jeex foofa ndeysaan benn waay daal di yëkkati ak fettam am na ñu ne Omar ibn Saad la daal koy sànni ci xare bi daan ne na ngeen seede ne xare bi man maa ko taal ma ne ko def nga lu bon de waaw buñ delloo ca buur ba nangeen ma seedeel ne man maa njëkk a maa njëkk sànni fet euh, mbokk yi tedd yi waxoon naa ne Xuseynu ñim àndal ñëpp juróom Eh, juróom ñaar fukk ak ñaar lañu ak ñee nga xam ñoo ci ko gën gaa bari mu nekk téeméer te armée bee ñeenti junni moo ne day bi xare bi tàmbale ci bisu fukkeel bi ñu tàmbalee songante di rayante di rayante xare bi suba googu la tàmbale dem na ba tes baar te gëñëwuñu xoseyn allahu akbar xam nga foofu njàmbar mënu koo weesu juróom ñaar fukk ak ñaar ci ñoo xam ne mooy sa arme nga boole ca fanweer yoo xam ne ñoo ñëw di la jàppale nga ne gën gaa bari moo mënta ëpp téeméer yaa ngi jàkkaarloog ñaata ñaata junni waaye xeex nañ ci suba ba tisbaar jot waaye mënuñoo gañe Xuseyn ñi ngi rey ci ñii di rey ci ñee Xuseyn ne leen kon tee ñoo arrêté guerre bi julli ñu ne ko dee déedéet loolu moom duñ ko duñ ko def mukk fi nga xam ne Xuseyn dafaa dencoon njaboot gi mooy jigéen ñi ñi nga xam mënuñoo xeex ak xale yi feebar yi muy ab xayma ñu ñu dem taal ko fekk Xuseyn nee na leen leen woon bu ñuy tàmbalee xeex bi te ñu te ñu def kooraakoor yéen kay dee leen kenn ñuy génne kenn ñu ne ko mukk xam nañ seenug jàmbaar bu ñu ko defee da ngay da ngay ñu jeexal moom kay mo dañuy sëllëxoo rek dañuy sëllëxoo rek dañuy sëllëxoo ginnaaw bi Xuseynu di leen attaqué di leen attaqué ba ñu waaro ci yàlla ne ñu Xuseynu doon na xeex xeex boo xam ne kenn mësu koo gis di rey nit ñi di wëndeelu di rey anam goo xam ne kenn mësu koo gis ngir njàmbaar goo ko yàlla defal ba mujj gi dañoo mujj sàkku ca euh, ca moom ne ko na dolli soldaar yi na defaat beneen rapport xaa man ko yéen a ñàkk jom de na defaat beneen rapport nga xam ne nee ñu lu mat juróomi téeméeri soldaar yónnewaat na leen ko yónnee na leen ko noonu la ñuy def nag wër leen ba di leen rey ñi nga xam ne ñoo ànd ak euh, al imaam Xuseynu képp koo xam ne gis nga ne ñi ngi waaj a jege Xuseynu da ngay daw kar ko yow ñu rey la ñoom ñëpp dañ ne ñun moom xam naa ne danañ rey Xuseynu waaye ñun buñ ko fekkee maanaam ñun buñ fekkee bi ñuy rey Xuseynu ñun ko fekkee moo tax ñoom ñëpp dañoo ñëw rek sallaloo ko soldaari heure bu ñu dem ba jege Xuseynu dañuy dox ci kanam di xeex ñu dem nag ba daanaka ñoom ñëpp ñu rey leen nag nga xam ne daanaka desul ku dul Xuseynu Xuseynu dong ñu wër ko doon mbooloo mu nekk di xeex mu nekk di xeex léeg-léeg am ko ko jege waaye rek du am fitu ñëw dóor ko ndax day xam ne kii sotu yonent bi la xam naa ne su ma ko dóoree moom sama toroxte ci lay nekk ku ko jege rek dëppaat ku ñëw ba jege ci moom dëppaat waaye ku bon lu ñëpp jom ku bon moo koy def gis nga chimron shimrun mu dil jawsan mais mu yàq mu bon moomu nar a texee di moo gëdd soldat yi ne la waaye lu ngeen def ni ray leen ko ray leen ko waaye ku ñëw rek du ko du ko mën a ba benn waaye ne ko yow yaa ngi naan reyle ko yow demal nga ray ko waaw demal demal nga ray ko ñun heure bu ñu ko tiimee rek dañuy am lu ñu yëkk ba dañuy dañuy dellu ginnaaw waaye rek mu continuer di leen gëdd ak di leen tëkku ba ñu wax ne benn waaye daal bu texee de moo jekk-jekk ñëw dóor ko si ci mbaggum ndeyjoor mi ndeysaan radiyallahu anhu mu daal di néew kattan euh, beneen waaye bu tudd sinan ibnu anas daal koy jam ab xeej mu daal di àgg suuf euh, ñu bari nag doo ko tàmbalee am fit ñëw di ko dóor nga xam ne eh, bi mu faatoo ba noppi nee ñu gis nañ ci yaram bi lu ëpp téeméer ci ay jam-jam yenn yi ay xeej yenn yi jël si yu ñu ko dóor nga xam ne daanaka faat na ba noppi sax ñu continuer di ko di ko dóor benn ngir ragal gi ñu ko ragal def jàpp ne faatuut ba ca desit nag mooy nar a texee di rek nar a nar a texee di ginnaaw bi yëmuñ foofu ñu teg ci jëf ju jëf ju bon mooy daal di ñëw dagg bopp bi am na ñu ne xawlu ibnu yazid moo dagg bopp bi am na ñu ne déedéet simru la simru ibnu zil jawsan mu bon mu bon moomu moo dakk moo dagg boppu xuseyn alayhi salaam waaye moom it noonu la ko muxtaar a saqafi def daq ko ba jàpp ko soo ay wala boog ay soldaaram rey ko ba noppi dagg ab boppam daat koy fay jëf ju bon joojee mu mu defoon moom saay-saay boobu yi kon imam xuseyn noonu lañ ko noonu la sahiide nga xam ne njabootam gi àndaloon ñëpp daanaka rey nañ leen ndax dafa àndoon ak njaboot njabootuk boppam moom xuseyn am na ko tuddoon ali yu mu mag ndaa am ali yu mu mag am mu ndaw mu ndaw moom dafa feebaroon moo tax faatuñu ko kaca des dafa tuuti woon lool moo tax faatuñu ko ñaari doom ñaari doomam lañ bàyyi muy dund ak koo xam ne rakkam ju jigéen la xuseynu ñaari ñaari dooma yooyu muy aliyu mu mag ak abdullah rey nañ leen boo demee njabootu al imam xasan abdullahi ak qaasim ak abou bakar ñett ñëpp ray nañ leen ci xare bi njaboot ko xaqil xaqil mooy bàyyi muslim ma njëkkoon a yónni xam nga rey nañ muslim moomu rey nañ beneen muslim Abdurrahman, amna ku tuddu abdullah ak jaxfar ñom ñepp ñoo dañoo and ak husaynu ray nañ leen fofu te njabot yonante bi sallallahu alaihi wasallam lañ bok sayidna ali yu ñu bari ci njabotam ray nañ leen ndax jëmmi xuseenu mom sax ñëpp daanaka njabotam lañ ndax jëmmi husaynu mi jité won gañ rek domam la ray nañ ko ray nañ domam ji tudd jaxfar nañ domam ji abbas domam ji muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, ak domam ji ñu tuddu usman ak abubakar bakar ray nañ leen abdullah ibnu jaxfar momit amna doomu ju awna ak muhammad ñom ñep fofu ci xare bi nga xamne dal bo boo bilan bi ni mo demee njambaru xoseenu da ciy feñ ndax jëmi xoseenu deug la ray nañ ko jam nañ ko jam-jam yu metti yoy ci dag bopam waye bo xoolee soldat yi and ak xoseenu ñep 72 lañ ci faat 72 nga xam danaka moy tollok mom ñi and ak mom danaka rek waye xoseenu mom ray na ci ñom 88 xam nga loolu jàmbaar mënu ko weesu ñeenti junni jàkkaarloo moom mu rey ci 88 moom nga rey ci moom lii dafa dafa dëgg ku ne xam ne loolu doon ab xeex xam nga loolu loolu loolu loolu na dayoo loolu doy na waar bu dee nag waa ahlul bayti 18 lañ ci faat ci njabootu yonent bi alayhi salaatu wasalaam fukki nit nit ak juróom-ñett rey nañ leen ci ci waa waa ahlul bayti biñ daggee bopp Xuseyn ba noppi nag radiyallahu anhu dañ ko yóbbu ci Ubaydullah ibnu Ziyad ba mu demee nag ak ci ak texe dem tax na mu cay bàkku nee ñu daa jëloon lu mel ni ab bant di ko teg ci bëñ yi benn waay bu baax am na ñu ne anas la ne ko moo ne day bëñam yooyu ngay jël di ci teg sa bant bi yàgg naa gis yonante bi alayhi salaatu wasalaam mu di ko fóon ak di ko di ko ndama mu daal di am kersa lool tàmbali nag naan waaw moom day xoseenu mii yàlla defal nañu tawfeex ñu faat ko nangam benn waay bu tudd abdullah ne ko yow yaa tuskare yow yalla nga nan yalla da leen defal ak fatahu yéen ngi ray satu yonante bi alayhi salatu wassalam mo noppi ngay wax melni ne ku jakkaron nga ay yefer Ubaydullah ibn zayd ne japp len koku ngeen ray ko ñu rat kay japp ray ko dag bopp bi def ko ray ko ray wu ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ngir bëgg xop nit ñi bi neñu dañ ko yobbu ca Yazid mi nga xamne ne lañ waxone ne boru julit ñi te xoseenu lank bañona jebulu ci mom ak ñi nga xamne ño deson ci Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ñom zainab bint Seydina Ali zainab mi moko ko ñoo bokku ñoo bokku nday ak bay Fatima ko jur Seydina Ali moy bayam ndaysan ci la zainab waxon wayam yu yeme ya waxam ju waxam ju doy war bim mu gisee Xuseynu ñu ray ko bàyyi ko ci àll bi dere sàng ko mune wa Muhammada salla alayka maliku samaah haasa Xuseynu bil araah murammalun bid dimaah muqatta'ul a'daah waa thakalaah وبناتك سبايا إلى الله المستكي وإلى محمد المصطفى وإلى علي المرتضى وإلى فاطمة الزهراء وإلى حمزة سيد الشهداء آه، دفا يوخ و يونت بي اي واي محمد صلى الله عليه وسلم يو يونت بي يالا بي يالنا لا يالا دولي توفيق تاي داي لي دال ساك جابور دوينا بار حسين سا دوم جي nga beggon lol tay ma nga ne ray nañ ko sanni ko ci Allah ba lañ ko sanni ma nga ne taqrib deret euh ci rip dañ ko ah fu ne jëlee ci dem na fa ay waay lii doy na waar dafa mel dañoo yara dal te dafa mel sa njaboot gépp daanaka tey la tey lañ leen faagaagal rek ndax daanaka ñaari góor moo ci des ak benn jigéen daanaka bu du doon ak ñoom njaboot yonent bi day dagg nga ne du amati ay sët ne ko tey sa doom yu jigéen yi ñi ngi leen jàpp maa mel ne ku leen jàppe ci xare muy lu ñaaw ne ko waaye nag suñ borom subhanahu wa taala day moom la ñuy jàmbat suñu ay jafe-jafe di ko jàmbat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ak euh, al imaam Ali ak nag al Fatima mi nga xam ne mooy doomu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ab xolam ak sayidna Hamza mi nga xam ne mooy tabarkàlla mooy sanku mboolem ñi mboolem ñi mboolem mboolem ñi martir biñ ko biñ leen indee nag ci Yazid mi nga xam ne moo nekkoon Sham andi njabootu yonent bi ñi ci desoon ne ko ñii daal ñoo fi des ba noppi indil ko bopp Xuseyn bi indil ko bopp Xuseyn bi mu daal di wax ay wax wax yu bari yuñ ciy nettali yenn yenn ñu wér na yenn wérut yàlla xam waxalaa kullin daal Euh, boole na leen ak Nu'man ibnu Bashir nee ñu mu sàng leen defar leen am na ñu cee nettali yeneen nettali yàllaa xam histoire dafa xaw doy waar waaye yóbbu na leen nag madinatu munawwara bañ àggee dugg ca dëkk ba ñu ne la desoon ci njabootu Muhammad gi ak Xuseyn mi ngi nii nit ñi tàmbalee di yooxaloo jooy yu méttee méttee métti yu yu xaw a yu xaw a doy waar teewul nag daanaka jëmmi xese bi foofu la yam waaye yàlla saa borom subhanahu wa taala ñi nga xam ne ñoo doon def Xuseyn jëf ju ñaaw ji yàlla boole na leen ak beneen arme boo xam ne lañ leen def am na ay nit ñu jug mer ne faaw dañuy fayul Xuseyna ba rey nañ ci ñoom junni ak juróom-ñaar téeméer ngir fayul Xuseyna nga xam ne ñoo mujj rey ñëpp Yezid mi nga xam ne moo moo nekkoon buur bu mag ba Yezid ci boppam daanaka rek ñeenti at la ci rekk daa di faatu am ku tudd Muxtaar ibnu Abdullah Athaqafi moo jógoon di fayul Xuseyna daanaka ponkal yi doon euh, sonal Xuseyna ñëm ñëpp moo leen rey Abdullah ibnu Zayad mais nekkoon góor na ca Kuufa moom moo ko rey Amru nu Saad moo ko rey Zul Jawsan mu bon moomu moo ko rey ginnaaw ba mu ba mu mi ngi ñëw sax daa daw daa daw dem di làqatu ji fu ne mu dem fa ñu jàpp ko rey ko ne ñu dagg bopp bi Xusayn bnu Numayr mooy kii ki nga xam ne Yuusufa ba mu demee ca ndox ma di naan moo ko sànni fett ga ba derajee tuuru Xusayn moom yi Muxtaar ibnu Abdullah Astaxafi moo ko rey ak ñu baree baree baree bare bari moom daal buy euh, euh, nettali boo xam ne doy na war Karbala di situation bu bu yéeme lool bu metti lol bu daw yaram waye liñ ci mëna a eh, bari na lo ci nga mëna a jànkate suñ borom wul dara xol rek nim fonké njabotu njabootu bi waye gis nga fiñ jaar loolu lepp suñ borom xam ko teewul mu bayyi mu jall ngir rek ay daraaje yum leen yum leen nara yëkëtil eh, wa ka kër bi alayhi eh, alayhi salatu wassalam nim fonké fonkee bi waye gis nga rek njabotam fim leen jaarale ci nga xam yalla lepp lépp loo ne duko duko rek loolu yàlla seetaan na lu ëpp loola waxin la nag ni yàlla moom du du seetaan dara ndax kii seetaan mooy ki taxaw mel ne dajaa mënu dara waaye suñ borom ay dogalam dafa yéeme eh, sëñ Musaa Ka nee na bala bala laa wóolu ba jox la mbir ya nga yenn yanam ba aw ca tànki mbër ya nee na tamit eh, nattub jullit day yokk ay maqaamaam mbaa muy sipi ñaawteef bisub xiyaamaam su ko def mbokk yi loolu lañu fi indi woon loolu moo di xisab Karbala ñu ci doon jéem a góorgóorlu di dajale waxi borom xam-xam yi am na am na wax yu bari yu ñu wut man na am nga déglu ko feneen am yu bari ñu ñu wut dañuy bañ rek di ci wax lu ñu xamut wala ay wax yoo xam ne léeg-léeg mën naa ci waxee par parloo waaye rek histoire histoire la euh, du ñàkk moos ay njuum te bari ci ay njaxas bari ci lépp luñ ci juum ñaan suñ borom subhanahu wa taala jéggal nu ko matet gi doomu aadama la lépp lu ci nit jariñoo insha allah rabbi yàlla boole nu nangul salli ala muhammadin wa ala ali muhammad mbok mi ganna bi nga video video ba pare ñu lay ñaan nga bëss fi ñu bind jëm mu fekkee gande si chaîne bi nak bëssal fi ni ñu bind s'abonné après nga activer cloche bi ni mën nga tamit wax sa xalaat fii nii commentaire yi lii nag ci fay dara te dina tax video buñu dugalati di nga ci jot jëf